بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر waltaatifi bi nadrati biha analu watari bokki jullit yi ànd ñun ci àddina yëpp ñoo ngi yëkkati kaddu di ci jiital sant bur yàlla di ko ñaan moom sunu borom tabaraka wa mu dolley julli ala qiblati l arwaxi maulana muhammadin alayhi salatu wassalaam ak waa këram ak i ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni danay baawaan ak xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa sax day ku tegul sa tànk ala siratil mustaqim yàlla na bur yàlla boole ñu ca ña teg seen tànk ala siratil mustaqim e di ñaan sunu borom tabaraka wa taala niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya ak niiri leeram ya ak niiri feeñu waayam ya yàlla bu mu deñ di ko dotti ba faw ala darixi cheikhina wa wasilatina ila rabbina maulana abil abbas ahmad at tijani ak mboole xalifaam ya ak muqaddamam ya ak mboole jabootam ga ak ya mboole taalubeem ya yàlla na bur yàlla boole ñu ca soppeem ya ca dëgg e tabarakallah di nuyu képp kuy ànd ak nun nag ci baatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu e jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na bur yàlla boole defal nu ko dunyan wa uxra e di ñaan itam tabarakallah E, weer wi nga xam ni ci la ñu nekk muy weeru safar ak weer wa nga xam ni moo ko jiitu muy weeru muharram e, tabaarakallah ñi ngi ciy ndokkeelaat fépp fu taalibeb Cheikh Sayid Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu nekk ndax itam nag e, fokk ñu xam ni rek Cheikh Tijaani dafa am ñaari maqaama yoo xam ni ba ñett sax nag moom la ame waaw moom la ame yàlla ko jox ñetti maqaama la insha allah taala nag comme dañu nekk ci weeru safar te itam weer wi ku ne xam na ni bés ni tey moo tombe woon ak guddi ga nga xam ni ca la Cheikh tidiani radiallahu anhu jotoon maqaamam boobu ñuy wax maqaamul katmiyati te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ràngaloon ko ko am na yu ca xew yu bare am na lu mu ca waxit naam barewul waaye lu ko jiitu nag moom maqaam bii am na lu ca xewoon muy makamul xat xatmiyati euh, katmiye bokkul ak xatmiye ñaar yi dañoo ute bokkuñ nit yàlla yi liñ koy bare bare bare xamoon nañu euh, euh, makam boobu ñuy wax maqaamul xatmiya moo tax it am na ci ñu ko mos a oote woo danañ ci ñëw waaye maqaamul katmiya nag mosuñ ko xam yàlla tere ñu di ko ñaan yàlla kon incha allahu moo tax ñu waajoon benn spécial ngir rek bégele ko képp koo xam ni yaa ngi bége Cheikh Seydi Ahmed Tijani radiyallahu anhu ak foo mën a nekk ci àddina bi waaye yaa ngi koy santale yàlla itam ci maqaamam yii nga xam sunu borom moo ko ràngal mu wéet ca lool nag nde amul ben nitu yàlla min qaafin ila qaaf bu mos a ràngoo maqaama yii kon nag ñi ngi kii ñi ngi koy ànd ak yéen di ko ko momore waaye di teewlu itam maqaamaam fu nu toll moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu ah rawatina nag ci bis tey jii nag ñi ngi ciy ziyaara ñëpp ñi ngi ciy ndokkeel ñëpp ñi ngi ciy ñaanal ñëpp yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla may ñu yàgg koo teewe yàgg koo feete yàgg koo bége te lépp lu ca nekk ci njariñ leerak barke sama borom defal nu ko def ko muy yiw def ko muy teraanga def ko muy tedd nga def ko muy texek adina ak alakhirah waye dajal mu daj moole xet yonent bi nak alayhi salatu wassalam xam nga dafa am ko xamni e soko amé dang ko wara dang ko wara fessel dang ko wara siwel ci waxin c'est important amna ko xamni boko amé dama ni dang koy fessel waaye da koy siiwal itam mais am na koo xam ni matuta siiwal matuta fisal xam nga tax ñépp ko xam ku ko wax ak ku ko waxul Ahmed Tidiane ñépp xam ku ko wax ak ku ko waxul moo ci bokk yam xam nga <laughs> li benn waay ndeysaan daan def ca jamono te booba fekk na eh, eh, Cheikh Tidiane radiyallahu anhu génn àddina waa ji daf daan def bu bu fees la waa ji dëkkoon daf daan def bu jamonoy sedd bu ñëwee xam nga xam nga xam nga marok rawatina fees jamonoy seddaay dafay dafay metti seddaay bu metti moo fay am waa ji nag seddaay boobu bu ñëwaan daf koy sonal parce que moom dafa amee rhumatisme mujj gi mu daal di xelam dem ci ni moom daal am na benn nitu yàlla bu mag kii may wax du taalibe Cheikh ti de déedéet mu ne am na benn nitu yàlla boo xam ni mi ngi fii ci gannaaw ñi ngi ko denc fii ci gannaaw fekk mi ngi wax foofu ñu denc Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu daal di dem eh, ñu tegal ko eh, espèce su lal lal lal yu ndaw yooyu rek mu tëdd ci ñu dugal ko ci biir zaawiye bi a ah, ñaari fan ñett ngelaw li upp ko rhumatisme bi daal di dem sedd bi dootu ko sonal mu daal di dox ak tànkam te buy ñëw dañ koy téye delluwaat këram at ma ca topp sedd bi ñëwaat sonal ko mu dellu siwaat ci zaawiya bi qissa bi may wax bu ngeen demee ci bugyatul mustafid li charxi muniyatil murid bu muhammadul arabi saaixi radiallahu taala anhu ma nga ca waa ci boppam ñetteel bi yoon bi mu dellusee ci biir zaawiya cheikh sayidi ahmad tijjaani radiallahu anhu cheikh ci boppam moo ne ñu xeet ci xabru bi jóg cheikh Tidiane laa wax de li may wax ni itam il faut que ñu comprendre que ni du wax yu rëy cheikh Tidiane génn ci xabram fekk denc nañ ko ba pare mu jugaat loolu du dara parce que foog ngeen xam ni suñu borom li mu wax ci alquran lu leer la kullu nafsin zaiqatul mawt bakkan bi ne day mos day mos de waxul day dee complètement de dee rek déedéet dee benn temps bu gàtt la il faut ñu comprendre loolu aussi dee guddul yàggul déedéet waaw ah. cheikh radiallahu anhu dal di ni ñu xeet ci xabru bi dal di jóg fekk waa ji fi mu toog dal di koy raay ni ko demal bul fi ñëwati wér nga laa wax <laughs> kooku itam nekk ku reconnaissant mu def qasida ci sayidi ahmad tijani radiallahu anhu haa bu yéeme dal di cay wax ba muy wax naan ndeysaan inna tijani تاج لا نظير له الله صرفه فينا وولاه والله واخنا دق يعني إن التجاني ورنت أملتني سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه تاج mooy ndëppal nitu yàlla yi ndëpp ndëpp ndëpp moom moom moom la ñuy wax ci tubaab paroxysme wala boog acmé fa nga xam ni fële lépp yem moom la ñuy wax ak taaj moom la naan inna tijjaani werante amul ci ne Cheikh Sayid Ahmad Tijaani radiallahu anhu taajun moom mooy ndëppal nitu yàlla yi laa nadira lahu kooku amul morom amul nawle amul ndend déedéet te kii wax lii du tijaan de dafa jëflanteeg Cheikh Tijaani radiallahu anhu mu ni allahu sarrafahu fii na ñun dey xanaa ñoo nar a xoole rek nar a ñàkk chance waaye ku mel ni Cheikh Tidiane radiallahu anhu yàlla jël ko jox la bolek bolek yow nga am ko moo xam noo mën a ajoo ci moom ndax allahu bur yàlla sarrafahu moko ko wëlbati allahu bur yàlla sarrafahu moo ko ay maanaam moo jox tasarrufaat yi am fii naa ci ñun parce que nitu yàlla la muy man di ko def ci digganteem ak yàlla loolu suñu borom tabaraka wa taala moo koy jagleel rek du lu bàyyi ci boppam mu di jëf moom mais lu bàyyi ci yàlla lay doon mayuk suñu borom la loolu mooy allahu sarrafahu fina naa waaye wa wallahu nee na gis nga cheikh buur bi moo ko fal waaw buur yàlla moo ko fal te moo méngoo ay mbiram gis nga nag loolu rek moo ci nekk ba yàgg sax ndeysan dem na bay wax naan min ayni maadin ata fajaahu kulli fata min bahrihi yustaqa iz taaba suqyaahu te ki wax lii tijaan te nag alxaq ma shahida bi laada waa ji def ni cheikh tijaan mii may wax damay bañ mu jaawale koog beneen Cheikh Ahmada Tijaani de moo tax mu ni min ayni maadin ata ki may wax aynu maadi la ganee jamono dégg wax bi ki may wax aynu maadi la gane jamono ca Algérie ca Jazair moo tax mu ni fajaahu kulli fata daraja ak maqaama bu nit am ci yàlla te doob yonent yëgal ni min baxrihi ca géejam ga muy wilaayatu wala boog muy xatmiyatu bu neexee di yustaqa ca lañ koy nandale fa jaawu kulli fata daraja bu nit mën a am ci yàlla min baxrihi yustaqa ñi ngi la koy nandale ñi ngi la koy maye ci géejam nga moom sayidi ahmad tijani radiallahu taala anhu te géej ga nag ma wax la ko moo di bahrul ti lu tax is taaba suqyaahu is ndax nag taaba tey na dal na suqyaahu nandalam nga ndoxam ma moom la suñ babacar di wax di rid wir deful azba al azb is taaba suqyaa la tadjar bida abadan inna al manahi la tahmimi madayaa ay ceeg loolu rek moo ci nekk kon nag gis nga mbokk yi dam doon wane rek ak di wax ni ndagam ñi nga xamante ni bii nii wax dëgg yàlla duna ay tijjaan teewaa jiituñu jamono teewoon di woon ay nit dëgg ñoom ñoo seede lii ci Sayyid Ahmad Tijani radiallahu taala anhu kon nag yàlla tere ñinga nga xamante ni bii ni nag ñooy ay taalibeem kooku lu ñu wax ci moom rek dëgg la xam nga nag cheikh dafa ràngoo ñaari maqaama mbokk yi bi ci njëkk mooy maqaamul katmiyati bi ci topp mooy maqaamul eh, eh, bi ci njëkk mooy maqaamul xat xat miyati xaalonku ñu tomb mooy alxat ñaareel bi moo di maqaamul katmiya xam buñ ko doon le ñaar yi fi ñuy tàmbalee rek moo di d'abord il faut que ñu comprendre que ni cheikh radiallahu anhu tëbul tëb rango maqaama yi il faut loolu leer aussi dafa am moom nu mu mel c'est très important parce que am na lool ku ko bëgg ci yàlla am na lool ku koy dagaan ak di ko yaakaar ci yàlla faw rek nga am noo mel xam nga dama ciy jël ay quelques bayit yoo xam ni borom dara daramaan maam qaadi ma jaxate kala ndeysaan euh, euh, euh, radiyallahu anhu ponkal moomu ci qasida bu rafet boobu mu defoon ci Cheikh Tidiane ma wax tuuti rek ci ni Cheikh meloon gis nga su ma noppee ñi may déglu même buñ dul sax ay Tidiane waaye bu fekkee dañuy utiliser xel ak bon sens rek de danañu xam ndax kii ñuy wax dëgg-dëgg yayoo na maqaama bii ñuy wax maqaamul xatmiyati wala yayoowu ko bu ñu paree rek dinañu ko xam parce que il faut aussi tamit affaire yi mu scientifique cheikh moo am nangam cheikh moo moo moo jot nangam cheikh moo yor maqaama sangam yooyu yëpp dafa nekk ay xaqaa'iq muqarrara yoo xamante ne bii ne laa yumaara fiiha dafa nekk ay dëgg yu kenn dul weddi kenn du ko lam lame waaye ànd loolu yëpp nag il faut ñu firndel ko pour wane ni ki ñuy wax ni modi sahibul khatmiyati wal katmiyati wal bardaxiyati al udma nii la melon ni la melon xam nga mam qadi dafa tambalé qasida bi qasida bu rafet la nak bokk yi xale yi na ngeen ko topto après moy bi mi tàmbale ni tamada jumuhul nafs bil lahwi wad dadi wa taatuha amrul jawa wat tamarrudi وفي حب رنات المذامير والغناء وزجر كتمثال الكتابي أجردي وغيد الغواني الحور عينا كواكبا ذوات طموح في كمال تخردي قصيدة بي نون لتنبلي دم با من لها من قنا الخط القوام أو الضبط طلا مها الوحش العيون بأسمدي إليهن قد أسرى بأسر الهوى الردى بيقمني فمن لي برد النفس عنها بمقودي معنى <laughs> شيء ما قاضي ما جاكتك لك كيما نو يالو بير دفني موم دفاي دفاي دافا بوزي سادير اه، اه، اون بروبليماتيك بروبليماتيك بي موي موم دفني فغنا سي غاتال بونتو نيتو يالا بو نيك parce que wax bi fi bul ko jappé kuy kuy def lolu ñuy tuddé euh tuddee xazal déedéet ki deful ghazal de li mu naan tamaada nafsi bil lahwi wa dadi wa taatuha amrul jawa wa tamarrudi du ay ghazal de da fay wone rek que ni mom buntu mbolé tariqa yi nga fi dégg nee musna ko waye yek nani seni borom danaka la ñu barewul nag garab bu la sutul du la mën a may ker xam nga loolu mooy problème bi mu ni waaye gis nga keroog te it daf ko daan wax mboole nit yàlla yi bari na ci koo xam ni ba ma ko roofoo dama ko ni sojet dugg ak moom ci biir suuf lu tax parce que moom attanuma te nit boo yëkkatee loo attanul da ngay daanu mu ni waaye gis nga keroog ba ma duggee ci biir xadrab kooku nga xam ni moo di Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ndeke yoo dama doon fo aka fontoo ka caaxaan sama bakkan rek laa toppoon newuma woon ci dara jongoma yu taaru ya daan ngel seen bët ye ca loolu rek laa nekkoon loolu daf koy nataale ak di ko sama ndaaye yoon wanga nga xam ni ca la jaar la jiitu muy daje Cheikh Tidiane radiallahu anhu loolu rek la looloo waral boo xoolee bi mu naan ilayhinna qad asra bi asral hawa rada maanaa jigéen ñooñu muy misaal ne na eh, eh, eh, ilayhin na ca jigéen ñooñu le xat asra ci dëgg riñaan na bi asral hawa ci loolu nga xamante ni bii ni dégg nga moom moo di jéngi cofeel jéng xam nga nit bu fekkee dañ ko dafa sopp ñaare dafay mel ni ku ñu tëj prison ci lu mu sopp ndax du bëgg li mu sopp rëcc ko waaye du bëgg a génn moom ci lu mu sopp loolu mooy bi asral hawa ar rada loolu nga xam ni nag moo di alkande parce que nit bu fekkee dafa bëgg dootul xalaat su fekke dafa bëgg dootul calculer day rek di dem mo waral pour mu gañu dafa yomb wai, lay wax naan way way comme man nak dama awoon yoon xamanteni bi ni danaka alkandela danaka du dara mam qadi moy wax de waye dem ba yag mu daldi di ni wa faman li bi raddin nafsi anha bi miqwadi comme sama bakan mom mi ngi eh, eh, eh, mam di taañaañal di dem rek wa fan lay jili ko xamni dana mana delu si sama bakkan tek ko ci deug tek ko ci ray bi hmm. lolu yombul de wax ko mo gëna yomb de faman li bi raddin nafsi anha bi miqwadi fan laa jëlee ko xamni dana jël sama bakkan ngalap ko teyé ko ba bu naré dal ci danger mu ko nuté fan lay jëlé sëriñ bu mel nonu ah légui yofi nak mu dem ba yàgg daal ni wa man lii bi ustaadin aluudu bi wirdihi yaqini yaqinan kulla hawlin bi mawridi wa man lii ana fan lay jëlee waay bi ustaadin ci koo xam ni dana doy sëkk wéeruwaay ci yàlla aluudu koo xam ni danaa wéeru bi wirdihi ca la nga xam ni moo di la mu yor di ko di ko di ko jox ay taalubeem di leen ca nandal ci yàlla loolu mooy baatu wird mooy ndox ma nga xam ni moom la amee ku ñëw mu jox la nga naan te boo naanee man te dootoo mar baabadan yasqi al muridina min kasi al wusuli ila nahwi al muradi alladi qad kaana mawaahu kooku cheikh al xalifa radiallahu anhu moo ko waxoon mam qaadi nag daal di ciy teg ni fan lay jëlee sëriñ boo xam ne wéeruwaay boo xam ne dana wéeru ca moom aluudu dana wéeru bi wirdihi ci wirdam wa ba pare yaqini mu may fegal mu may protéger yaqinan ci lu wér lan la may protégel mu ni kulla hawlin bi mawridi kulla hawlin bi mawridi kulla hawle mooy bépp tiitaange ak bépp njàqare bi mawridi boo xam ne dina nekk fu nit di rot di fa wut yàlla parce que nag il faut que ngeen comprendre que ni yoonu yàlla dafa bari ay danger yoon yàlla dafa bari ay ay ñagg-ñagg dafa nekk une rose épineuse à propos de laquelle il faut en savoir il faut en savoir déceler les épines il faut nga am ku la tette jàpp ci sa loxo di la wax fi ngay tek sa tank ak fi ak fi ndax faw ñu xel que ni Iblis mo waxon ak sunu borom ni ko la aqudanna lahum siratakal mustaqim. lol du fi jóg dana ni rëjj yu man Iblis sirataka ci sa yoon wa almustaqim sa yoon wa nga xamni moy ray bu jup bi raay bu jub bi ca lay toog ku ca aw danaa la dévier kon xam nga yoon yàlla yombul foog nga am koo xam ne xam na pakk yi pakk mooy fi nga xam ne boo fa jaaree da ngay fakkatalu daanu maam xawdi ma jaxate kala daal di ni waaw fan laa jëlee sëriñ boo xam ne dana jàpp ci sama loxo euh, protégé ma ci lépp loo xamante ni bii ni dana mën a gàllankoor taalibe ci yoonu yàllaam ba pare daal di ci teg ni waman lii bi cheikhin aalimin zi maarifi tabibin li adwail fuaadi musaddidi cëm الله أكبر لأن ومن لي أنا فن لا يجل واجي بشيخ تسرين بو خمني عالم ولا يبرم خم خم لا ملا يانجي نيو دي دكو خي خي نيرك دي صاحب الختمية والكتمية والبرزخية العظمى أها شيخ دمي ولنونا مبوكي نجيكي ولولو دي ba jang jotee dafa jang amoon ay sëriñ yu ko jàngal ba wut yàlla joté daa dem wuti yàlla amon ay sëriñ yu ko tette looloo tax mu ni wa man lii bi cheikhin ana fan laay jële sëriñ boo xam ne aalimin boroom xam-xam la waaye di maarif day boon boroomi boroomi boroomi xeeti xam-xam yoo xani lenn lu ci nekk nit dina ca mën a yàlla wala lenn lu ci nekk nit dina ca mën a xamee ca yàlla mooy koo xam dalay teg ci yoon wuy tax di nga mel lu tax nit dootu la jàngal téere dootu la jàngal waaye borom bi jalla jalaaluhu moo lay jàngal loolu mooy zi maarif waaye day doon sëriñ boo xam ni ki may wër dafay lamboo melo yii mooy lan tabibin li adwaa'il fuaadi musaddidi tabib dafay nekk docteur wolof mooy wax sulu sañ mooy baatu wolof bi kooku moom xam naa ni Moustapha xamu ko sulu sañ mooy docteur ci wolof sulu sañ waaw mooy tabib docteur dégg nga tabib nee koo xam ni dafay nekk euh, euh, euh, ab ab ab docteur bi li adwa il fuaadi ci mboole jàngoroy xool yi la <laughs> ilaha illallah aka wax dëgg nañ dem siyaare mbay docteuru tariqa bi bari fay tànk aayu fa mbay min tiibi marnaahu te moo ne kooku kenn la ci taalibe Cheikh Tidiane yi kon nu Cheikh war a mel waa jile moo tax mu ni tabibin ki may wër dafay nekk docteur boo xam ni ban docteur nag ban docteur mu ni li adwa il fuaad yi mboole jàngoroy xol yi nga xam ni allahu akbar moo lay xamal ni maam xaadima jaxate ka la murabbi la mais nit ñi xamuñ ko te Sénégal tey nit ñi àgg nañ ci ci ci ñàkk a xàmmee ba fi mu ne kenn ñëweetu la wax ni xawdi ma jaxate kala tijjaan la waaye xasida bi nu ñuy def moom te ci mujj taalif la bokk te waxaatul gannaaw bi lu dindi lii waroon naa yaatu ba nu dem ci Mor Saasum Jaxate radiyallahu anhu doomam ja ca baayam ba mu def ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nga xam ni keroog ba mu ca pare maam xaadi dafa bég xaqataay ba mu mujj mu ni ko dëgg dëgg neexul ba neexul waaye nag nii nga mën a mel nag parce que man sa baay arab laa te man sama baay ajam laa waaw waaw maam xaadi keroog loolu la mujj wax Mor Saasum doom ja ba pare ni ko yëgoo ni al nahwu wal arudu wal bayaanu allamani asraraha arrahmanu an nahwu muy xam-xam boobu ñuy wax eh, eh, nahwu muy grammaire wal arud ak xam-xam bobu ñu wax arud muy métrique xam-xam bi nga xam ni moom ngay jàng pour sukkandiku mën talif ay bayit wa pour xam mizan ash'ar al arab ilm al-qawafi wal bayan ak lolu ñuy wax rhétorique xam-xam yoyu neena allamani allama xamal na ma man man qadi ma ma jaxeta kan momako ma ko xamal mu ni arrahmaanu buur yàlla mi wax ci al-qur'an ar-rahman allama al-qur'an koku moma xamal asraaraha ay mbotam waaw xam nga mos koku du ku ndaw nak neexul ba neexul kooku bu taxawee mu ni fan lay jële sëriñ boo xam ni boroom xam-xam la ba pare dafa nekk ku xam lool bu la ko xamalee yow boo ca tënkoo dootoo nit ni yow dootu la jàngal c'est fini maintenant loolu mooy di maarif waaye tabibin li adwa il fuaadi allahu akbar day doon sëriñ boo xam ne docteur lay doon bopp day mën a saafara jàngoroy xol yi parce que Cheikh Tidiane loolu moo doon mission sa terrestre mission moom moo doon bu ñëwee كيف كو خامني نياغ نياغ خول يي نيك تي ياو تيلا ييغ يالا غاند نالا مو فخه با تاخال لاك موم لول موي طبيب لادواء الفؤاد واي خولال نك مسددي داي دون كو خامني كوي مد لا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وجعلنا من بين ايديهم سدا موم لا نيي واخ مد موي ديك loo xam ni boo ko xasee ba teg nit ki dootul am fenn fu mu jaar mooy fan lay jële sëriñ boo xamante ni bii ni bu ma ko xasee ba am weeru ci moom mën naa gedd lépp mën naa doyloo lépp dana ma mëdd ba kenn dootu ma mën a laal loolu mooy mu saddidi am ñi koy firee ku jub <laughs> sadid firiwul jub déedéet sadid mooy firi mëdd waaw kay wax ju mëdd mooy wax joo xamante ni bii ni wax ju daj kapp la boo ko xasee ba wax kenn dootul amati daralum ci teg mu ni fan laay jëlee sëriñ bu mel noonu fan laa koy jëleeti cest sa di dafa bëgg a wane ni gis nga Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ni mu mel da caa wéet kenn melul ni moom te ki ko wax maam Xaadima Jaxate Kala moo ko wax de ñii ay kajoor kajoor lañu dañu xam lan moo di ceddo jàng nekk ay boromi xam-xam du ñu wax kenn lu ñu gëmut il faut il faut il faut que ñu xam loolu aussi ba pare daal di ciy teg ni waman lii bi cheikhin di ulumin gadira yutahiru adnaasa radaili murshidi waay waay waay waay waay waay fan lay jëlee waman lii bi cheikhin ana kan moo may dimbali ba ma dajeeg sëriñ boo xam ni di ulumin gadira day doon borom xeeti xam-xam yu bare yuy sotti ba mel ni waame koo xam du yam ci xam rek de waaye la xam da koy jëfee ba tax sunu boroom donale ko beneen xam-xam bu bokkul ba mu jàng muy sukkandiku ci leeru xam-xam boobu di laabal lépp loo xam ni ay sobe la ci képp ku aju ci moom ab sëriñ fala budda nga jàng mënul ñàkk loola waral mu ni yu tahiru sëriñ boo xam ni dana fóot dana laabal adnaasar razail mboole tilim tilim yi nga xam ni bakkaar yi moo koy waral waaye sëriñ boo xam ni murshidi boo ko jegee jub bul ko firi mursidi ku jub de cheikh rombante naag ñuy wax ni ku jub la dangay wax ni yow boo ko jegee jub mu ni fan laa jëlee mu ni paree gu ma di ki ma soxla dafay dafay présenté sëriñ bi mu soxla ni mu mel léegi dama ni scientifiquement bu ñu présenter sëriñ bii muy wax su boobaa daañu xam ndax dëgg-dëgg wax dëgg yàlla eh, Cheikh Tidiane radiallahu anhu eh, eh, ndax yeyoon na maqaamul xatmiyateem xatmiyateem loolu dinañ ko xam duma fi tok rek nan katmiya moy nangam xatmiya moy nangam dedet dam len di wax ki moy kan rek après ngeen xol ba xam muni ni ki ma soxla man qadi ki ma soxla ko xamanteni bi ni yuhilu nuhasi khalis adh-dhahab alladhi wallahi yuqallabu bayna an-nas bil yadi fal yadi ki mam qadi ma jaxata kala moko waxon neena serigne bobu day don ko xamni yuhilu okay yani yasqalu day mën a day mën a soppi day mën a wëlbati nu xaasi li nekk ci man di ay bakkaar ak i tilim tilim ba mel ni përëm ak weñ gu ñuul sëriñ boobu bu dikkee daf koy transformé nu mu koy def hmm? xaalisa zahab wurus wa gën a sell la koy def ah xilaasu zahab moo xaalisa zahab da koy dafay fekk la nga xam ni ay bakkaar ak i ak i jàdd yàlla xëy na tax na euh, euh, euh, loolu mel ni xam nga foog ngeen xam ni tam bakkaar su bare noonu lay def kalla barrana ala qulubihim ma kaanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun ثم إنهم لصال الجحيم يفهمني كومبراند لولو بكار بوي باري تي خول بروم بي ني ديفار بن تومبو بو نيول دي ياتو غاي ديف بكار توبو ديلو تي يال مو ياتو غاي ديف مو ياتو بي بو خاسي با بي نا كومونيكاسيون دوتول مانا ام تي جيفي نيت كي اك روحام اك خولام سات سا ديفيا امبوسيبل لالا غيس غا بو تامبالي ام يفهم faut nga dajek nitu yalla bo xamanteni bi ni comme niko mam qadi ma jaxate kala waxe yuhilu nuhasi khalit adh-dhahab alladhi yuqallabu bayna an-nasi يحيل كو خامني دانا ولبتي دانا سوبي دانا ترانسفورمي نحاسي ليغا خامتيني بي ني مودي تيليم تيليمي بكار يي نيك تي مان با ملني كو سوبي خالص الذهب ولا بوك يحيل كو خامني دانا سوبي نحاسي سما جيم جيغا خامني دافا نيول با ملني بيرم سما جيم جيغا خامني دافا نيول با ملني وين نيول سيرين بوبو دانا كو سوبي مو خالص الذهب wurus wu set wu sell wurus woo xam ni jaarale lañ ko fañ ko war a jaarale mu nekk parure boo xam ni ku ko gis taqalikoog sa sago moo tax mu ni alladi wurus woo xam ni yu xallabu dañ koy wëlbati bayna naasi ci diggante nit ñi ku la gis ñee la ku la gis bëgg a am ak yow affaire bil yadi fal yadi ku téye ni jox ma ku téye ni jox ma kenn du ca doyal waaw Cheikh Tidiane bu la jàppee bala laa bàyyi nii la lay def wallahi yàlla xam na ko ba pare mu dal di ci tek teg xoolal paré gul de te li li mu wax ni rek déjà buñu ci yamone li bala nga dox ba ba ba gis ku ko man wax ko mo gëna yomb de mu teg ci ni waman li bi shaykhin zi shariati kulliha بصير بأسرار الحقائق مرتدي ومن لي kan moo may dimbali ba tax ma mën a am ana fan lay jëlee bi cheikhin ci sëriñ boo xam ne zi shariati kulliha xoolal mboole luy lu lu lu aju ci shariatul muhammadiyati moom sëriñ boobu da koy peeg da koy xam da ca na natt tànkam fan lay jëlee kooku ba pare du yam ci rek de waaye basirin day doon ku gudd bët doon ku ni jar yewwute xam bi asraaril xaqaa'iqi ci mboole loo xam ni dafa aju ci mbóoti xaqiqa yi péeb suñu borom bi da koy xam da koy am ba pare murtadi day nekk mbubb moo xam ni da koy irtidaa u da koy làmboo boo ko ne jàkk xam ni mooy waaja kooku amul werante Cheikh Tidiane keroog ba mu njëkkee dugg faas <laughs> ndeysaan mu daje gars yi ñu naan benn waay daal moo fi dugg si nee nañu day wane yonent beeg yu kenn xamul waaye gis nga ku dem ci buur bi nettali ko ko rek li koy wax mooy moom daal waa ji kar xar kanam bi neexul ñëwee parce que xëy ba ak leer gi li gi jolli ci kanam gi la kenn xamul lan la waaw buur bi nekk ku mat ni leen ah ne leen ko man di damaa bëgg gis yonent bi ndax mooy sama maam Mawlaay Suleymaan bu ngeen demee ngeen wax ko ko ñu wax ko Cheikh Tidiane mu ne na ñëw waxtu sàngam bu ñuy wasifa waxtu ba jot buur bi ñëw toog ci wetu Cheikh ñu àgg si juróom ñaari jëwër a cheikh maas ko teg ko loxo rek mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yaqazatan laa ma naaman attanu ko mu yuuxu daanu ba keroog ñuy pare wasifa bi yeewuwul bi ñu paree cheikh teg ko loxo mu jóg xam nga lu ko ci tegal daf ko ni waxuma la man mawlaaya Suleymaan waxuma la waa Faas waxuma la sama soxna samay doom waaye berkelle bi may war sax berkelle bi may war biral bi may war bés ni ki tey sax tijaan la ñii ñoo xamoon dëgg te nangu dëgg c'est très important xoolal mu daal di ci teg ni maam xaadiri gis nga yii xeeti melo yée moo yey ni woo lii <laughs> fan naa koy jëli ndax da nga ko dul gis ba di ko am mu teg ci ni wa lii bi cheikhin zi xawaariqa jamma sarayaatuhu tahdi l murida fa yahtadi fan lay jëlee ana kan moo may dimbali ba tax ma mën a am bi cheikhin ci sëriñ boo xam ni zi xawaariqa boromi xar baax la jamu xarqa xar baax xarkul aada zi xawaariqa xawaariqa doo wax xawaariqi xawaariq ko tëgg tëggu mafail tegu mafail dafa nekk tëgg bu ñu jengal du soppeeku dafa mel fawaida wala nga ni masajida du Tegu tëgg bu ñu jengal la loolu la ñuy wax tëgg jengal ilmu ilmu tasrif ñoo xam waaw ah. mu ni fan lay jële sëriñ boo xam ni vi zi xawaariqa jàmma dafa nekk boroomi xar baax yoo xam ni kenn mënu ko lim ndax bare Cheikh Tidiane déet duñ fi toog di waxe xar baaxam kat parce que nag boo ko boo ko defee doo wax ci kat miyatu doo wax ci xat miyatu di nee na fan lay jël parce que dafay wax ki ma soxla nan la war a mel ba pare daal di ciy teg ni sarayaatuhu sëriñ boobu nga xam ni moom lay laaj ak di ko soxla ngir ngeen dimbali ma ci saraayaatuhu ay jikkoom saraayaatuhu ay jaar-jaaram saraayaatuhu ay melokaanam nangu na ñett yëpp tahdi dafay gindi dafay orienté almurida ke bëggul lu ma yàlla parce que almuridu huwa alladi la yuridu siwa allah qala tabaraka wa taala yuriduna wajhahu al murid huwa alladi laa yuridu siwa allah boo ko déggee mooy ku bëggul lu ma yàlla kon nag ki nga xam ni yàlla rek la bëgg buy wër sëriñ boo xam ni ay jikkoom mbaa ay jaar-jaaram dana ko gindi dana ko orienté nee na man sëriñ bi mel noonu laay wuddee mais pas koo xam ni da ngay ñëw ci moom mu gën laa sànq de sarayaatuhu waxuma la moom jëmmam waaye ay jikkoom rek wallahi tahdi dafay gindi al murida fa yahtadi ba keroog muy gindeeku waaw waaw acca lamb leen rek gis nga yi may wax ni da koy ñaw ngeen def ko ay mbubb ku ngeen ko fi solal mu ëpp ko lii may wax ni ñaw leen ko rek benn bayit par bayit ngeen def ko mbubb ku ngeen ko fi solal laa wax te du Ahmada Tijani billahi barke Cheikh Tidiane mu ëpp ko ak ku mu mënti doon da ko dul nangu sax ah, loolu may wax ji mu ni ci ni waman lii bi cheikhin laa yudaamu muriduhu yufarriju gamma al yawmi aw fadaa al gadi man serigne bima soxla ça ne peut pas être n'importe qui te duma ko choisir n'importe comment motax muni waman li ay way kan ma dimbali ba tax ma meuna am ana fan lay jële bi cheikhin ci serigne bo xam la laa yu ab taalubeem la wax ken du gotti du ni mukk yalla dama bëgg suñ borom gàntal déedéet talib Cheikh Tidiane mhm. laa ilaha illa allah waay waay loolu mënul nekk sax eh, eh, sëñ Babacar Si déggoo li mu wax kii daf ni waman lii bi cheikhin laa yudaamu muriduhu sëñ Babacar ni eh, muridul qarni cheikhi laa yudaamu yanaalu bihi bi gaayati maa yuraamu naka jekk waxi dëgg benn lay doon montre yu baax ñooy bokk heure sëñ Babacar dani muridul qarn talibé sang ba sang bi moy kan Cheikh Tidiane kan ngay wax muni ni cheikhi sama serigne kooku lani ab talibé la yudam ken duko goti muni yàlla li la bëgg suñ borom ni ko du ci dal abadan lol do am ba pare mu tek ci mom khalifa radiyallahu anhu ni yanaalu dana am moom taalibeeb Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiallahu taala anhu bihi ci barkeb Cheikh Tidiane bihi ci maqaamab Cheikh Tidiane dana ca am bi gaayati maa yuraamu ca ak la muy mébét ak di ko wut di ko sàkku ak mooy la ngay bëgg la ca gën a rëy fa mu yam foofu la yàlla di daggee jël jox la moo tax mam qaadi ni waay waay waay waay waman ana fan lay jële ay waay kan moom may dimbali ba ma mën a am bi cheikhin ci sëriñ boo xamante ni bii ni wallahi eh, eh, eh, laa yu deful gotti deful delloo ay loxoom muriduhu ab bem defu ko gatchel mukk a baye efiri, e la yudam moy deful gatchel muriduhu ab bem moo jamono yi ci gannaaw degon na fi sama ben mbokku talibi ndaysan bo amone ay jafé jafé ak ay nit mais bamou guéné def déclaration la wo xalé dara ji ni len kenn ku ne tëyal dog parce que ci bir déclaration bi mu def dama dégg mu ni man julit la

c'est très important moo tax mu ni fan lay jëli sëriñ boo xam ni laayu doomu deful gàcceel muriduhu ab taalubeem te day doon sëriñ boo xam ni da koy man nag lan lay man mu ni yu farriju day wuññi day wëlbati xammal yow mi njàqarey àddina aw fazaal gadi ak tiitaangay alaxira waaw waaw way way xoolal wax xoolal wax ji yufarriju xammal yawmi aw fadail gadi sëriñ lay doon boo xam ne yufarriju day day day wuññi day dindi ba mu set xammal yawm Cheikh Tidiane yi nga jox ko loxo nga jaayante ak moom ngay am fii njàqare ci àddina mënul nekk nee na bu mel noonu laa soxla aw fazaal gadi ak njàqare yi ëllëg yowmal qiyam mos naa ko wax di ci benn programme ndeysaan ñuy waxtaan man leen gis nga ëllëg yowmal qiyam fii moom muñ leen fi xam Cheikh Tijani radiyallahu taala anhu waaye ba ëllëg ca kanam yàlla Hmm. man leen balaa yonent yàlla Muhammad di ñëw wallahi Cheikh Tidiane dana toj langue gi ci lu wér ndax dañuy jekki ba yàgg rek gis nit ñi fàq di daw ñu naan yonent bi yonent bi ndax danoo nuroo lool nag danaa ci ñëw ñu ñëw jekki benn chaise leer mooy bàyyi ko ca kaw ñu tu yàlla yëpp ak ñu taxaw laqpaab yeeg lawtaat yeeg lajraas yeeg mafatixul kunuz yeeg ñëpp kenn ku ne yor sa loos منهم شيخ سيد احمد تجاني رضي الله تعالى عنه موي يك تي كاو من بربا توك ني جيكي با ياغ ديغ بن بات تدو موم دي بات بي نان هذا ممدكم في دار دنياكم بغير علمكم بات بي لولاي واخ هذا كي نين دي لات موي كان ممدكم لو نين امون امات كو parce que baatu daat loolu lay firi mooy loo xam ne da nga koo am amaat ko lépp loo am amaat ko rek yàlla ci Cheikh Tidiane la ko jaarale ba ci mbubu mi ngay sol ndax amoo ci benn ah loolu mooy baatu limdaat waaw kay ca alquran ja borom bi da koy wax amaddakum bi anaamin wa banin dégg nga ko Wajib buy addu ëlëk yowmal qiyam ca ndaje ma def naan haada ki ngeen di laaj ki ngeen di laaj xam nga kana ñu ni ko déedéet mu ni dukum. mooy ki leen doon tëbb ay leer fi daari duniyaakum ba ngeen nekkee ci seen kërug addina ga waaye xam nga luy problème bi bi gayri ilmikum da ngeen ko xamul woon waaye dinañ ko xam nag ndax dinañ ko wax waaw kay dinañ ko xam nag ndax danañu ko wax insha allah waaw kay waaw kay loolu rek moo ci am solo xoolal ba pare nag maam xaadi ni ah, ah man sëriñ boobu laay wut de ñu ni ko waa mais ki ngay wut yombu am mu dana danaa ko sàkku danaa ko wut danaa takk sama ndigg mu jaral ma ko danaa yéeg ci kaw montagne yi séenu ko danaa dugg ci biir xur yi luqati ko mbaa ma wër ci réew yi ci àll ba keroog may dajeek moom mais sëriñ bi mel ni laay wut moom la daan talabtu fa jitu naasa fi kulli mawtini wa jultu فجبت البيد من كل فتفدي إلى أن أقر بين باد وحاضري بأن لم يجد دهر بهذا ويوجدي وهل يكمل الأوصاف إلا لواحد يكنى أبا العباس نجل محمدي ah léegi wax ji leer de waaw kay bàyyi mu ni gis nga ku mel nii kii jarawut ku man yii ñu wax kookoo jarawut mbokk yi dajale alal amul njariñ wut leen Cheikh Tidiane moo gën c'est-à-dire pour wax ji gàtt bañ a nekk fii di di tourner autour non non non maam Xaadima Jaxate Kala dégg ngeen li mu teg ci ni talabtu wut naa ko sakku naa ko mu jaral ma ma jóg mu ni fa jiitu naas ma dem seeti mboole nitu yàlla yi loolu mooy fa jiitu naas fii kulli mawtinin ci mboole réew yi nag. وجلت ونيلنا من جالا وي فجبت دفنا من جابا البيدا نداند فاي فاي جي موي ال بو خامني امولي غراب داغي خول با فسبت يام موديب ال موي البيد موم لا ولوف دي واخ نداند فاي فاي في كومين كل فت فدي تي بيب سوف سو خامني كيك لا المكان الصلب او التراب الصلبه لول لا ني واخ الفتفت mooy suuf soo xam ni kekk la nee na wër naa ko ci àll boo xam ni ndand foy-foy la seet naa ko ci réew moo xalaat ak moo xalaatul moom sëriñ bu mel nii ba ci doj yi sax seet naa ko fi waaye rek fu ma ko wër képp ku ma dem ci yow xam nga loo ma ciy tegal ki ngay wër xam nga ko nee na ma ni xaw ma ko de melo yi laa xam mun la nga ni ko waaw mun la waaw baax na daal di bind kayit dal dina ni la ki ngay wër yu abal abbas najla muhammad mbolé gox yi mbolé mam mam xaadi fuma dem rek dal bu wax ja bare fan lay muju li ngay wër du fi de li nga bëgg du fi de do ko amé fi de ki nga soxla du du man de ki nga soxla yu abal abbas najla muhammadi Lolo waral mu dal dini eh, eh, eh, ila an aqarru ba mboole réew yi ma traversé ak suuf yi ma jaar ak dëkk yi ma jaar yépp ñoom bokk nañu daje saxal d'accord bayna baadin wa xaadiri moo xam ku dëkke teeru mbaa ku dëkke àll ñoom ñépp bokk nañu d'accord bi allam yajud daarun bi haada <laughs> nee na gis nga ku mel ni Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu jamono mënatu ko baax ba indeeti ku mel ni moom li ngay wër mënatu la nekkati yow xaadi xam ko bi an liy mbir tey mbir lam ya jut dootu tabeeti dootu ëndeeti dehrun jamono bi hada yaani bil muttasifi bi hadihi sifaati gis nga ku lamboo melo yi nga doon wax nii amatul c'est fini wa yujadi dee su ko amalati déedéet c'est fini ba yàgg mu ni waa ndegam ñoom ñëpp d'accord nañ te ci lañu ñu bokk d'accord mooy lan ku mel nii de amatul ku mel nii deesu deesu ko deesu ko gisati waa léegi nag kooku kan la ki ñuy wax kan la ki mel noonu kan la mu daldi di ni waxal yàq mulu déet muy daje déet muy mate al soofu mboole melo yi ñuy wax boobu ba tey di melokaani xutbu ak di melokaani wali yu wa nga xam ni moo ti mboole wali yu melo yooyu matewul dajewul illa li wahidin ndere ci kenn rek ndere ci kenn rek kooku kana mu ni kooku yu kan moom lañ doon dàkkentele moom lañ doon dàkkentele abal abbas yi waaw ndax nag foog ngeen xam ni muhammad ibnul arabi al xaatimi radiyallahu anhu ku doy waar la ku yéeme la ponkal la waaw Badub nu Sidiin nekkoon fii ci gànnaar nee na mboolee nitu yàlla yi ñett ñoo ci ëpp maqaama waaw mboolee nitu yàlla yi ñett ñoo ci ëpp maqaama ci yàlla daf daan wax mu ni eh, ndeysaan eh, ndeysaan waa alaaji xanaa nag da nga ma gën a jàngal fatiha man de xam nga léegi damay fàtte waaw waaw bayit ya ndeysaan mooy ba muy wax naan la tatmaan bi nayli thalathatin walaw irtaqayta ila zulal irfani laa tatmaan abadan bi nayli thalathatin ولو ارتقيت إلى ذرى العرفان من أذعنت غلب الرجال لقهره والحاتمي وشيخنا التجاني جخنا بدو بن سيدين مكدان وخ مملن دان ووي حسان الطريقة أي واي اللي مواكي طريقة تجان يلن تكون يلا ما يدن لني وقت يا أمول تي أدنى بمودك من قاف إلى قاف لن يتالي في طريقة تجان أمول تي بين تيري بنكو أمول تي بين طريقة بنكو تاليف سا نكزيست أمول فن شيخ أحمد سكيري تاليف نا 136 ليفر يوم تك سما بد كي طريقة تجان وخماي قصيدة دي أي تيري لا وخ سيدي حسن الباقلي رضي الله عنه تالف نسا كاران سيستيري في طريقة جان وخاقو من ينسو نريو مي مك نينو أم لينو تالف في طريقة جان اسكي دي دي نغمك واك واك جيخنا شيخ تجان داي مولو ممكن لولو دفا نيكول سات سي با لورد دي جور لولو سا داني واخ جوكو تشوفلو نيت ني اك mais yàlla xamna ni tok sax di wax nan Cheikh Tidiane du morom kenn lolu way yow lolu lolu sax yàlla yàlla tere est-ce que du nekk bàkkaar sax waaw Baddu ibnu Sidin radiyallahu an daf dan wax ni mu lañ dan wax baddi ha fisan daf dan wax mu ni la tatmaan bul khamem bul beug abadan mukula wax bi nayli thalathatin ci jot ak am maqaamab ñetti ñi wala wir taqayta donte ñog ñoggi nga escalade nga yek ba ag ila zural irfani ci baxtalu xam yalla bo ca yegge yit bu mu tax mukk nga xemme maqaamab ñetti ñi nga ni ko kan kan mu ni man ka nga xamni azanat toroxlu na rijali ponkali góor ñi wa hadaiqa xulba wa fakihatan wa abba xulbu rijal mooy ponkali góor ñi ka nga xam ni ca kanamam la ñu toroxlu mooy cheikh abdul qadir al jilani <laughs> kooku du ko daw kooku maqaamam ci yàlla kooku laay maara ñëpp d'accord nañ ci ñëpp bind si ñe moo raw ci jamonoom ci góor ñi ah koo xam ni dem na tukki taalibe bi mu dénkoon daara ji moom cheikh abdul qadir al jilani taalibe bi mu dikk fekk ñu koy jullee mu ni lii lan la ñu ni ko kii de taalibe bi nga fi bàyyi woon mu yoroon daara ji la ca Bagdad dafa faatu mun leen déet loolu mënul nekk yàlla dina ma dénk di jël te tàggu daa déet dindi mburi leen kii kii mënul de effectivement pekk boobu dafa fatt rek deewul dafa fatt ñu defe ñu dafa dee ñu ni mënul mënu leen mënul dee déedéet ñu ne lu tax mu ni parce que yàlla mënuma koo dénk ba noppi wëlbatiku di ko jël te tàgguwuma muri leen ko laa wax kii mënul dee ñu muri ko waa ji ne ñokkit jóg dem yoonam xanaa sëñ Mansour sax radiallahu taala anhu defoon na ko ak Guèye Khalil ci jamonoy pest ba Guèye Khalil pest bi tisati ko ñu daal di koy jël daal di koy ramasser boole ko ci ñi nga xamante ni bii dañoo yaakaar ni faatu na yóbbu ko fii hôpital Aristide Le Dantec biñ dikkee wax ko sëñ Mansour dafa ne Guèye Khalil mënul dee fii tàgguma fan lañ ko denc ñu wax ko mu ànd ak ñoom li may wax nii c'est vérifié ñu ànd ak moom fii ba ci Le Dantec ñu daal di ubbi tiroir yi ubbi tiroir yi ba yam ci Guèye Khalil mu ko Guèye jugal kooku tissu lii ni ñokkit jug eh bien loolu day problème loolu du problème ok mu ni ci Abdul Qadir al Jilani kooku ponkali góor yàlla yi ñoo ko nangul kooku mooy ka ca jiitu ca ña nga xam ne ñoo raw ci góor ñi ka ca tegu mooy wal xaatimi Muhammad ibnul Arabi al xaatimi ka ca tegu mooy wa cheikhina Tijani Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiallahu taala anhu ah waaw Cheikh Tidiane de moom boo ko xasee tudd rek bul tudd keneen ah boo ko defee rek da ngay da ngay jaxase carte gi nag looloo waral nag ñu dem moom xawdi ma jaxate kalani waxal yakmulu déet muy mate al awsaafu mboole melo yi nga xam ni moom la ñuy wax boobu ba nëgë ni matewul dajewul ci kenn illa li waahidin ndere ci kenn rek keneen ku mënti doon day am bi ñàkk bi am bi ñàkk bi waaye yëpp bokk daje ci kenn kooku Cheikh Tidiane laa wax moo tax mu ni yu naa kooku lañ doon dàkkantele Abul Abbas foog nga comprendre que ni Mouhamad ibn al-Arabi al-Hatimi radiyallahu taala anhu dafa am bés ndeysaan e, mu am gént gu mu gént dafa gént ca xalawaatam ya ak jalawaatam ya radiyallahu anhu suñu borom daal di koy wan kaaba gi xam nga kaaba gi rëmzi la ci wilaayatu ah boo tëddee guddi gént ko xamal ni am nga cër ci wilaya kooku amul lu ñuy lam-laami de ah waaw rëmzi ci wilaya mu tëdd gént gis kaaba gi ñu di ko tabax mu manqué ñaari brique ñaari brique yi bàyyi ko asamaan am na ñu ni zabarjat la bu ñu togg ak lu lu daal di koy doore ak loolu nga xam ni moo di marjaan mu daal di koy taaw daal di mottali tabaxu kaaba gi tiit ci nelaw yeewu dal dini kon maqam bima doon dagan ci yalla bes nitay yalla jox namako ci man la yalla motale ranguk wali yi lolo tax bam beggi dal xey contane mom mom muhammad ibn arabi dal dini انا خاتم الاولياء من دون شك ومريتي لارث الهاشمي مع المسيح خول بغنا فيخ مني بنا ختم الله الولايه فانتهت الينا فلا ختم يكون لها بعدي وما فاض بالختم الذي لمحمد من امته والعلم الا انا وحدي dafa daaneel kàddoom benn haatif rabbaani daal di ñëw ci boppam ni ko laysa lak ya cheikh ya cheikh laysa lak ma zanant laysa lak ma tamanna innama huwa li waliyin fi axiri zaman waaw parce que daf ni ana man xaatimul awliya maay daj dëpp nit yàlla yi boole nit yàlla yi duñu naane lu may ci man loolu mooy xaatimul awliya min gayri shakkin wa miriyati ci lu amul werante ci lu amul sikki sàkk lu tax mu ñu li irsil hashimi yi ndax donn mooy yonentub giir bani hachim di yonte yàlla muhammad ma almasihi waaye maa doon naa la yonte yàlla isa xool bëgg na feex mu ni léegi sax xam nga lu moo bina ci ñun laa wax man muhammad ibn al arabi al xaatimi xatama la tëjee xatama la mottalee allahu buur yàlla al wilayata lépp luy may ci wilaya lépp luy leer ci wilaaya lépp luy jagle ci wilaaya lépp luy xam-xam ci wilaaya lépp luy feeñuwaayu yàlla ci wilaaya lépp luy daraja ci wilaaya tuxaf yi minax yi axwaal yi maratib yi yépp mu ni ci man la ko yàlla dajale moom mu mu ni fantahat ilayna yooye yépp ci man la yam si fini moo tax mu ni fala xaatimun déet benn xaatimul awliya wala déet génn tëj yakunu deeti nekati lahaa di ko ñeel moom wilaayatu baadi ci sama gannaaw c'est fini ba yàgg mu ne la yonent yàlla Muhammad am ca xaatimul anbiya man Muhammad ibnul arabi moom laa am ci xaatimul awliya ah loolu nag daa mat a firi lan mooy xaatimul anbiya huwa nabiyu alladi laa yashrabu wala yasqa nabiyun illa min bahri fa huwa alladi eh, eh, bidatihi aw fa huwa alladi eh, yajmacu llah bidatihi jamia maratibi al anbiyai wal mursalin Lalu moy khatimul anbiya moy yonent bi nga xamni amul beni yonent tumbaku yalla yonni bop di nga nan wala ngay mandi ci leer yalla lulul ci hadram nga ko nani mo dajale lepp ku am mo la jox sallallahu alayhi wa sallam loolu moy khatimul anbiya de mais firiwul ki ki ki ñëw tëj yonent yi de dedet lan moy lalu. yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam maqamam boko yamale lalu ci loolu yang koy yang koy soufel di yonent bi epp na ay ki mujj ñëw mottali yonent yi maa ngi yaani zalik firiwul loolu xaatimul ambiya li muy tekki mooy ki nga xam ni mboole cëri nubuwa yi ci moom la ko yàlla dajale ku ko amati ci moom la ko yàlla dindee jox la loolu lay firi li muy tekki mooy moom moo di cosaan moo di asl li jamii nabawaati fa kullu nubuwatin tatafarrau min nubuwatihi fa huwa aslun li jamii nabawaati maana dattu garab la car yi ñooy yonent yi bés boo dindee datt bi car yi dee nubuwatu noonu la mel te kenn rek moo ko représenté mu yonent bi alayhi salatu salaam kenn rek moo ko incarné mu yonent bi alayhi salatu salaam loolu moo tax mu ni wamaa la nga xam ni phase amoon na ko texe woon na ca loola bil xatmi ca tëj ga mu yonent bi alayhi salatu salaam muy xaatimul ambiyaay ji moom lay junj alladi tëj googu nga xam ni li muhammadin ñeeloon na yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na la mu ca amoon moom wal ilmi ak lamu ci amone ci xam-xam amul kenn kuko amati illa ana mahdi lu moy man man may khatimul awliya amul ben amul ben waliyu buy nan lu ci sama hadra nga nané amul ben waliyu bu man de lu ci man ma tànkal jox la nga nan man Muhammad ibn Arabi mais gis nga bi danelé dafa am ben hatif rabbani bo xamanteni bi dafa ñëw ba ci ay nopam dal di niko ya sheikhu yow serigne bi laysa lak déddi ñel la maa li ngay jort laysa lak déddi ñel la maa li ngay mébét dedet mun leen ah kon kan moo ko amee mu ni wali yu wa koy amee ma ngay ñëw te ca mujj jamono lay ñëw mu jaral ko mu dugg ci ruuxaaniya wali yu boobu di ko laaj yàlla subhanahu wa taala sunu borom di ko fàkkal muy gis di ko fàkkal muy gis di ko fàkkal muy gis baja na ko waa ji nee na foofa xoolal turu Cheikh Tidiane sax xamuñu ko fa hmm, Cheikh maqam bi daa de tur wi tur wi sax xamuñ ko fi barabam sax xamuñ ko nee na ma ni waa léegi lan laa mën a xam am ci moom tuuti bokk lu ma tegtaloo li may wax mi ngi ci anka au Maghrib mais ce qui est malheureux moy bo démé actuellement ci téré bobu xoma kan mo def liggéey bobu mais lu ñaaw la def wax ja mohammed ibn Arabi wax jëmé ko Cheikh Sidi ahmed Tidiane dañ ko dindi ba mu set ci téré bi biñ ko molaté ah way nun ñi ngi yër téré yi len lu ci nek rek xam nañ nu mu démé moo xale yi il faut ngeen góorgóorlu c'est c'est dafa dafa yéeme dafa yéeme parce que mohammed ibn Arabi boo demee dafa wax ni بما دوجي تي روحانيه بو شيخ تجاني رضي الله عنه لين ما تي خمال موي مستقره بفاس وكنيته ابو العباس وكان مبتلا بالانكار نياتي لا خم موم مستقره بو نيو فامي سخ دي فا توك بروم بي افكتي كو فا مو ديكو فا ليغيل موي فاس waye wa kunyatuhu nagn koy dakentele modi abul abbas ta wa kana dafa nek wali wo xani wallahi mubtalan dagn ko natu bil kon yéen talibé Cheikh Tidiane noppal len sen bop li ci pey ba lañ ko dobalé Cheikh faw gaay di wax ci mom waye wax wax ba de jëm jëm ba ba adina addinay tukki Cheikh Tidiane day nek khatimul anbi a khatimul awliya ken mënu ci dara kon lolou mo waral mam qadi muni yukanna abul abbas ki mom lañuy dakantele abul abbas koku kana muni najla muhammad koku moy domi muhammad ja xam nga nak Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane dañuy wax ni baayam Mahamad Mahamad mais Mahamad laysa lahu maanan Muhammad amul maana mënoo ko firi déedéet arab rawatina surafaa yi dañu daan def képp ku ñu tuddee Muhammad dañuy bañ sàllalu sa tur di ca wax nag su dul noonu ba tax dañuy damm tur yi nga xam ni kenn dootul xam lu mu doon ñuy wax Mahmad wala ñuy wax Mahammad waaye dëgg dëgg nag aslan baaye Muhammad la tudd bi tadmimil miim leer na jeex na mu teg ca nag ma dem tuuti rek xam naa sax dana dana baax noonu waam xaadi ma jaxate kala dana baax noonu ñu dugg ci maqaam bi ah dëgg dëgg nag yu kan na abal abbas nag doy na nag ah waaw yu kan naa danaa ko firi xasida bi danaa def benn xam naa man ak laaj yi danañ ci def benn off ñu firi xasida bi daaliye bi parce que nag xale yi danañ ko soxla waaw danañ ko soxla danañ ko soxla ak bàyyee bu Mor Saasum jaxate ba radiyallahu taala an danañ ko soxla xam naa li may wax dégg nga léegi nag ñu dem ci maqaam bi mbokk yi gis nga Cheikh Tidiane radiyallahu anhu eh, bi mu amee 46 ans damay jël nag tuuti 46 ans bi mu ko amee dafa am lu xew ndax boobu fekk na ko muy wër yàlla wër gu metti dégg nga mais gis nga bi mu amee 46 ans yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa muriku ca kanamam yéen a ngi may dégg bokk yi loola ma nga amee woon ca abi samruun xasr abi benn pale la woon boo xam ne nitu yàlla ba fa dëkkoon moo tudd abi samruun cheikh naka jekk ku daan taqoo barabu nitu yàlla yi la ku daan wër nitu yàlla yi la naka jekk ak shallaala ndeysaan cey yonente alayhi sa digg bi jët la muri ku ci kanamam daal di jël tariqa tijaan jox ko waaye laataa mu ko jox tariqa bi da koo bégal ci ñetti maqaama loolu mooy wax ji nag il faut ñu comprendre loolu yonent ñëwul rek jël tariqa tijaan jox Cheikh Tijaan déedéet tariqa tijaan dinañ ko jox n'importe qui ak n'importe comment comme ça noonu loolu mooy loolu Cheikh yonent bi bi mu ñëwee dafa am lu mu ko wax hmm. daf ko ni anta <laughs> moom Cheikh neewul ana de defe naa nag kam gina arab moom ana ak anta bokkul انا من انت يو فكنا بوكول دي اك هو موم يي بوكول دي يرنت بي مو نيو نيكو انت القطب المكتوم والبرزخ المختوم والخاتم المحمدي المعلوم موي نيتي مقام ييغا خامني مام ديغ شيخ الخليفه رضي الله عنه ديكو تنك تي بايتام بنال الخلافه قد شاعت وراثته اتاه ختم من الرحمن والجاه أوكي وأي نال الخلافة موي برزخية العظمى حيث ينوب الشيخ عن كل أحد الحقيقة المحمدية لولو موي الخلافة العظمى بنان بيتي تقو الختم موي مقام الختم يدي والجاه موي درجة بيغا خمني كين خمو لوم تولو موي مقام الكتم يدي يونان تبين ديكي لولو كوخ أنت يولاني القطب المكتوم ياي سانغ بنيو نب مبيرم كدول منك يالا خمو تدرى xanaa xamuloo même Cheikh Tidiane radiyallahu anhu sax am na lu mu umpale ci maqama bi xam nga mos naa ko wax benn waaye xam nga dafa am ñoo xam dañ lay bëgg a wan la gën xir ci Cheikh Tidiane bëgg weddi suma wax bi ma déet sëñ bi nag defal ndànk yëf yi du polémique nag may laaj li ma wax fan laa ko teg rek cheikh bu ko xamoon du ko laajte cheikh ba ko yonent bi ne antal qutbul maktum wal bardaxul maktum wal xaatimul muhammadiyul maalum ma ne ko da ngay dem ci fitaax saadil abadiyya bu Cerno Abubakar Bansa di nga ca fekk li lay wax nii moom cheikh moo wëlbatiku ni ko dama lay laaj maanaa loolu nga xam ne moom la ñuy wax xutbul maktum nan la mel ak yeneen nitu yàlla yi bu ko xamoon dina ko laaj mu ni ko dafa mel ni jant ak biddiw yi benn la salaamaaleykum cheikh mooy jant bi mboole nitu yàlla yi ay biddiw lañu àgguñ sax ci weer yi looloo waral mu ni ko ante yow al qutbul maktumu yaay sang ba ñu nëbb mbiram loolu mooy katmiya danaa ci ñëw wal barzaxul maxtuum mu ni ko yow yaay ki digale nit ñi ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah yonent bi ku fok ni day jëflante ak yow directement rek xamuloo li xew yee amut déedéet faw nga am foo jaar faw nga am ci koo jaar faw nga am ci koo jaar ko am ko gis amna directoire de cabinet amna directeur de cabinet yonent bi nga Cheikh Tidiane mo koy secréter lolou du deñ ba adinay tukki looloo tax mu ni ko wal barzakhul maxtuumu yow yaay ki digeli yaay intermédiaire bi ya dox sama digg ak gaañi ah, wu mooma de ba pare ni ko wal khatimul muhammadiyul ma'lum fa nga ag ci wilaya mboolem fi yàlla seede nañ ñom ñep d'accord nañ yow kenn musu ci ag ba ëddinay tukki hmm. xam nga nak amna lol loolu gone du ko xam maa ko koy xam yàlla na fekk nag mu yee ca gone ya rek lol rek am solo amna lol lool gone du ko xam mag a koy xam waye yàlla na fekk mu yee ca gone ya c'est très important motax il faut serigne si dimbali taalibe yi wax len li xew lana waaw ah déet déet déet daaw daaw waa xam nga nag bu fekkee loolu bind na ko itam te làkk wi mu ko bindee accessible wala boog même bu accessible it waxuñ ko wala buñ koy wax it ñi ngi seet luñ cay ki lim wax dafa leer hada ubayduka inda albaabi yaqra'uhu wa laysa ya'lamu illa anta manxaahu mais waxal lim wax rek hada kii di fëgg sa bunt wa ubayduka sas njaamaa matu la sax jaam عند الباب ميغي سي سبونت تاخو يقراو دي فغ تدو باي وليس يعلم تدو خم مكلاني من حاهو ديستيناسيون فمو جيم اك لامو بغ تي يالا الا انت كوما يو شيخ تجاني كيب ياكو خم تا ياكو ام تا ياكو من موتاخ ما باي بونت ييب نييو تي ياو يوننتي بي نك صلى الله عليه وسلم جنوك شيخ تجاني رضي الله عنه نيكو انت القطب المكتوم والبرزخ المختوم والخاتم المحمدي المعلوم booba Cheikh Tidiane mi ngi am ñeen fukki at ak juróom benn bégal ko ci maqaama yi ba pare wëlbatiku nag daal di koy jox tariqab Tidiane astaghfirullah téeméeri yoon salaat al fatih téeméeri yoon ba pare ni wayi dem moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam tariqa bi daa am nu muy doxee de ah nañ ko xam de lawraat yi wàccandoowul de maqaama yi it wàccandoowul Cheikh Dundak na 18 ans nous devons procéder à la réalisation et à la euh, ñu euh, euh, matérialisation parce que xam nga dafa mel ni tey nga ngay ñu ni bon yow am nga niveau CM2 Nous le la am nga niveau CM2 mais am nga niveau CM2 taxul nga am entrée en sixième am nga niveau CM2 taxul nga am COP noonu la mel yonente alayhi salatu salaam bàyyi na Cheikh Tidiane xoolal 46 ans ba 64 ans 46 boo ko wëlbatee xam nga 46 mooy zaahir bi ci la jot tariqa Tidiane tariqa bi zaahir la lu leer naññ fang dang la boo ko wëlbatee baatin bi mooy lan 64 ci la rangoo maqaam ñaari maqaama yi moo tax ñaari maqaamam yooyu ñuy tëbb tariqa bi dañ ko war a wax nit ñi xam ko mooy baatin bi jeex na tàkk bi mu dundaatee 18 ans xayyu moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ba weeru muharram weeru muharram am na ñu ni ca bis bu njëkk ba am na ñu ni ca fukki fan ya ak ñaar yonent alayhi salaatu wa salaam daal di ni ko nag ah góor gi ah da nga may fekk nag ca ca jabalu arafata guddi tey yonent ko wax de li may wax ku ko weddi da ngay jema dem ci mashahidur rabbaniya bu bu bu gor gi ndaysan sayyid Ali barad Baradal Fasi mo netali xew-xew ba ta koku ëppante nak di fen yalla na ma yàlla baal sax ci kaddu gi koku ëppante nak ëllëg ci kanam yalla ñu dekkal ko mu janok yalla suñu borom niko yow ya wax li ci Cheikh Tidiane yow ya wax li ni xew na te loolu xewul wallahi war ngeena xamni xam mënul nek mom sayyid Ali harrad bi Cheikh Tidiane di dem mom la andal te bam dikke mom mo netali Cheikh ba legi waxul foo mu leer booba cheikh mi ngi am 64 ans amalgam yi dafa bare Demay dégg ñuy wax ni Cheikh Tidiane bi amé 46 ans ci la jot maqaama xatmiya ak maqaama xatmiya tëddeewul noonu il faut ñu retracer waat les faits il faut ñu retracer waat histoire Cheikh Tidiane 46 ans yi tariqab Tidiane la ci jot ñu beggel ko ci maqaama yi ba mu demee ba am 64 ans 18 ans après ci lay soog a jot tëgg maqaama yi nak. mu teer ci jëmmam ji nag mu incarné ko ba buuf te di wol keroog nag dafa am benn xew-xew bu ci am alaaji xew-xew bu yéeme ndeysaan xam naa dafa koy gàttal tuuti rek xam nga ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba mu waxee Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu moom nga dégg ku mel ni borom munyatul murid di ko nettali mooy bi muy wax wa fil muharrami gada gawtan rachid xalifatan an ilmuhaymin almajid utiya dhaka cheikhuna bi حكاه من حققه وعرفه من يوفى المحرم تيويرو محرم مويرو تم خريط بمامي نيسان جروم بن فكي اتاك نينت غدا تلا مجو موم شيخ تجاني رضي الله عنه غوث النك يا قدف يا غوث يا مولاي يا وذر يا منتهى املي بالله يا قمر يا مقتضى الحال في حرف النداء wa yaa xiyaasa kulli munaadin inda wataru gis nga baat yii yëpp dafa nekk ay kalimaat mutaraadifa tadullu ala maanan wahid ay baat la yu toftaloo tegaloo di waney melo mais ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy wax radiallahu taala anhu khalifa ko waxoon moo tax danaa ko wax xale yi dinaa leen nag bu fekkee da ngeen bëgg jege Cheikh Tidiane da ngeen di ya. waaw man mom dëgg yàlla fu ñu mënti toog xale yi dañ koo xam ci man nag ñoom ñu nekk ay saay-saay <laughs> buñ ma fekkee ma toog rek euh, xale yi woykat nga gis ñu tàmbali ya qutbu yaa xawsu yaa di ko woy bu ko defee rek ma daal di làmb poos nag lu ma ci fekk daal leen koy jox mujj gi mën leen waaye yéen ni ngeen may def ëpp na bu fekkoon danga ni mën nga indi identité Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiallahu taala anhu dëgg-dëgg ca yàlla identité bi dëgg-dëgg laa wax da ngay jël xasida boobu rek nga teg ko moom itam xam naa après dinañ ko jàppal jamono ñu jema set nuñ ko firé rek maf ñandu ko parce que du qasida bu bare torop légui nak muni wa fil muharrami ci wéru tam kharit gada ci la mujju mom cheikh tidiani radiallahu taala anhu gausan bi khatal waye ci la mujju nek khalifatan di koutay di représentant anil muhaymini ci bur yalla mi nga xamni moy yeungal yëngal duusu di len ñuy dal te bu dal du delu ci wat te mom rek xam nañu tollu kooku mooy muhayminu almajid buur yàlla mi nga xam ni moo sax ci tedd nga Cheikh Tidiane keroog ba mu amee 64 ans ca la nekk xalifa buur yàlla ci kaw suuf amul dara lu yàlla jëflanteeg benn jaami yàlla lu mooy dacaa wax ak Cheikh Tidiane wax ji rëyul boo ko mënta dégg bal noon rek wax ji hmm. amoo ah, rëyul moo loolu boo ko xoolee ci suñu fii ni mu tëddee rek da nga koy mën a dégg fi mu ne am na koo xam ne boo bëggoon a jot Macky Sall demal ci moom rek fi nga toog la koy woo te day décroché ah te li mu ko wax loolu lay def ah. jeex na surtout c'est aussi simple que ça loolu mooy xalifatan anil muhayminil majid mais nag maqaam boobu dafa am nu mu demee bi ñuy procédé di ko jox ma bi dafa am nu mu demee di toogul toog nii rek ñu jox ko ko déedéet أعطي جخيسنا شيخنا سنو سرين بن سيد أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه ذاك مقام بوب دي مقام الختمية فلان كو جخي موني بعرفة كجبل عرفة أواو بس كجبل عرفة بنت التي بنت أسماني بنت التي بنت أسماني وفتحت السماء فكانت أبوابا أيوة السلام عليك أجل آه jeex مقام maqaam bi léegi nag dama leen di nettali tuuti rek keroog bi makam bi cheikh di ko ràngoo muy maqaamul xatmiyati nan la demee bu ma ci paree wax leen baatub xatmiyatu lan lay firi ak façon yi mi xatmiyatu yi am ñaata la buñ ci paree nag ñu laal tuuti ci xatmiyatu ñaanalante ba beneen yoon insha allahu taala ñu daje ca nag te buñ dajawaatee beneen yoon su boobaa du ma dama fi bàyyi waxi qaadi ma jaxate kale jéeg waxi sëñ Babacar Si سوى با واخي شيخ تيجان شي بوبم لا يندي اوكي ان شاء الله خمغا حكاه نتلينا لا خيو كيروك من كان خمني حققه موكو دغل فيرنديل كو وعرفه تخم لب ندخ موكو فكي موي سيدي علي حراد براد الفاسي لغي نان لا ديفي يونتي عليه الصلاه والسلام سيد علي نينا دانيو توك با ياغ شيخ تجان نيما سيد علي ندخ ياغي نجاب مانيكو ماغي نجاب كاي مون ما اتي توب ما نو ديم نينا مو نغب سي سما لوخو ديغنتي فاس اك جبلو عرفه نينا شيخ سيد احمد تجاني رضي الله تعالى عنه نياري جيغو لوكو ديف خطوه ثاني جيغي جيغي وات نينا نيو اك جبلو عرفه كوكو نك دا فا بوك من باب كرامات الاولياء ku weddi karaama demal ci sóoratu defe naa ali imran nga dégg fa keroog yonent yàlla zakariya ba muy wax ak sunu yaay mariama lu mu ko waxoon annee la ki hada qalat huwa min indillah loolu wilaayatu loolu mooy karaamatu lawliya c'est tout yonent yàlla zakariya ñëw na fekk fa lu mu fa indiwul mu laaj yaay mariam foo jëlee lii mu ni ko xanaa fa yàlla inna allaha yarzuqu man yasha kon yamul ci ci situna mariam boole ci cheikh tidiane nag aywa cheikh ànd ak sidi ali nee na mu ngëpp ci sama loxo jéggi jéggi wat ñu daal di janoo ak jabalu arafa mais maa nga fekk Seydi mooy nettali nee na maa ngi fekk jabalu arafata ma nga fees dell aku nit dangay ngay xool ba fa yam lépp di aw nit nee na ñuy jéggi maag Cheikh Tidiane yi di jéggi di jéggi di jéggi ba àgg ci benn espace boo xam ni ñu ngi gis benn fauteuil am ko toog ci fauteuil bi am benn waay bu taxaw ci ginnaawam yore benn drapo am ñaar ñu taxaw ci ndeyjooram am ñaar ñu taxaw ci càmmiñam am ñeent ñu taxaw ñu toog janook moom am benn waay bu beddeeku nele nee na Cheikh Tidiane yi ñëw fekk ñeent ñi toog janook waa ji mu juróomeel leen nee na man Seydi Ali ma dem fekk waa ji beddeeku nele ma ñëw ci wetam daal di ni ko asalaamu aleyk ya rajul asalaamu aleyk ya rajul waa ji ni ko waa ji ni ko waa ji ni ko waaleykum salaam waaw daf ko ne maa ngi lay nuyu waay yow waa jile mu ne ko maa ngi lay fay mu daal di ne ko maa sababu hada al jamci al mubarak maa sababu hada al jamci al mubarak mais mbooloo mu rëy mii daje fii tey ana lan moo ko waral Seydi Ali ne maa ko laaj te nee na laata ma koy laaj sax dama ko dama ko ni masmuk masmuk naka nga tudd yow waa ji mu ne ko ismi xadir man maa ngi tudd xadir mu ne ko xadir Muusa mu ne ko naam waaw منكو ما سبب هذا الجمع المبارك بولومي دجتي ادنا دجي في انا لان موكو ورال نينا واجي ني دن با ياغ اولبتي كو جوخن شيخ تجان نيكو شيخك هذا سي سيرين بي ما ورال ادنا دجي في تاي <laughs> شتتتتت <laughs> لا اله الا الله غيسنغا لول ني مو امي ني يالا امي لا امي والله يالا خمنكو خولال nena madiko ma di ko waaw kii toog ci fauteuil bi kan la mu ni ko moo di yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ni ko kii taxaw ci ginnaawam nag mu ni ko kii mooy malaayika mi yàlla wakkil ismillahi alazamul kabirul akbar moo tax cheikh am ci lu ca kenn amul demal borom mu detul murid wax na ko wa kam xasaisi lil ismi lazami li gayri cheikhina rida lam tualami wallaay bëri na ay jagle yoo xam ne ci lismillahi alazamul kabirul akbar kenn xamewu ko kudul ci sunu sëriñ bi lam boo ngërëmal yàlla di cheikh tidiane radiallahu anhu yàlla xam na loolu ba mu ñëwee ca la waat bulon yi yëpp Cheikh Tidiane o oh, kooku sunni foofu du ma fa dugg sax dafa yàqu su may wax rek mu ni ko ñaar ñi taxaw ci ndeyjooram mu ni ko kii mooy Seydina Abu Bakr as-Siddiq kii mooy Seydina Umar ibn al-Khattab mu ni ko ñaar ñi taxaw ci wàllu càmmiñam mu ni ko kii mooy Seydina uh, Usman ibn Affan kii mooy Seydina Ali ibn Abi Talib mu ni ko ñeenti ñi toog janoog moom nag mu ni ko kii mooy Seydina Ibrahim kii mooy Seydina Nuux kii mooy Seydina Moussa kii mooy Seydina Isa cheikh ñëw juróomeel leen Seydina Ali harad ne nu toog ba yàgg rek jékki-jékki yonent bi alayhi salatu wassalaam addu bi lisaanihi ca làmmiñam mu tedd wa dal di woo yonent yàlla Nuux dal di ni ko yaa Nuuxu yaa najiy Allah yaa Nuuxu yaa cheikh al anbiya inni jaaltu Ahmad Tijaaniya haada خليفة لي yow nuux yow mi deyaaleeg yàlla yow nuux yow magum yonent yi yëgal ni bés ni tey jël naa sama manto summi naa solal naa Cheikh Tidiane yi def naa ko mu di sama xalifa yonent yàlla nuux daal di ni ko qabiltu wa raditu ya rasulallah nangu naa gërëm naa yow yonent yàlla muhammad ñu toog ba yàgg yonent daal di jékkiwaat daal di adduwaat daal ni ya ibrahimu ya xalil allah inni jaaltu ahmada tijani ya hada xalifatan li yow yow yow yonent yàlla Ibrahim yow mi xaritu yàlla ba jël naa si eh, Cheikh Sidi Ahmed Tidiane def naa ko mu di sama xalifa nee na yonent yàlla Ibrahim ni ko qabiltu wa raditu ya rasulallah nangu naa gërëm naa yow ndawal yàlla li ñu toog ba yàgg yonent yàlla Muhammad ya Musa ya kalim Allah inni jaaltu Ahmada Tidiane ya hada xalifatan lii yow Musa yow ma nga xam ne yaa doon waxaaleeg suñu borom tabaraka wa taala daan dégg kàddoom ga yëgal ni bés ni tey jël naa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane def ko muy sama xalifa muy sama représentant di sama kutaay summi naa sama manto solal ko kooku ni ko qabiltu wa raditu ya rasulallah nangu naa gërëm naa yow yonti yàlla muhammad yonen toogaat ba yàgg daal di ni ko ya isa ya kilmat allah inni jaaltu ahmada tijaniya hada xalifatan li waaye yow isa yow mi nga xam ne yaay kaddug yàlla ga yaay baatub yàlla ba ndax kun fa yakunu ci la bawoo moo tax moo tax ñu ko daan woowee kilmatullah wa kalimatuhu alqaaha ala ila maryam dégg nga yëgal ni bés ni tey jël naa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane def ko mu di sama xalifa yonent yàlla Isa ni ko qabiltu wa raditu ya rasulallah gis nga bi loolu amee mboole yonent ya fa teewoon mboole qutbu ya fa teewoon mboole aarif billah ya teewoon ca daja ba ñoom ñëpp ba yonent yi daaneelee ñoom ñëpp dañoo tànku wax ji tàmbali qabilna wa radina ya rasulallah qabilna wa radina ya rasulallah qabil naa nangu nañu waradina accepté nañu gërem nañu amuñu ben ñag ñag xol ci li nga def ya rasulallah yow ndawal yalla li ku bañ fi nga bañé mhm. ndegam sax nak bañ amna ndegam sax yow war nga bañ ok gis nga nak bi lolou amé ndaysan ñu daldi di ba yag ñu daldi di ba yag jekki-jekki am benn leer gu faqe asamaan Sidi Ali Harazim mooy nettali de daal di ñëw ba ci bopp Cheikh Tidiane bi radiyallahu taala anhu daal di cay wërngalu wërngalu daal di nekk benn kaala nee na looloo tax ñu ko daan woowee taajul aarifin muy ndëppal ñi xam yàlla loolu maqaama la ci yàlla la bayi koo doon leer wërngalu ba doon kaala ci boppam ba Sidi Ali nee na kaala googu kaala ak leer googu dañu ma di jàkkaarloog moom ba keroog mooy tàqalikoog moom di dem bàmmeel hmm, ali harazim <laughs> kéemaanu yàlla piir la wallahi yàlla xam na ko nee na bi loolu amee ñu daal di toog ba yàgg ndeysaan yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam dal di futti mantoom dal di koy solal cheikhana ahmad atijani radiallahu anhu yonent yi ñëw jaayanteeg moom ci tariqa tidiane la wax ak liko ko yonent def ab khalifam jaayante mubayaa moo di xalifa bi yonent bi kay digay jaayante ak mom waye cheikh am kersa ci yonent bi alayhi salatu wassalam rek beugul sax def jël am ben cieur ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jékki-jékki daal di ni ko ya ahmad atijaniya ifal fa filuka فعلي وأمرك أمري وإذنك إذني والله إلا لك أنت يا محمد واخ يا أحمد التجاني يا شيخ التجاني افعل دفل جاي أنت لك جاي فعلك سجف يو فعلي سمجف جفك وأمرك سمبير أمري موي سمبير وإذنك سندقل إذني موي سمندقل جاي أنت لك نيوم شيخ التجاني جاي أنت جاي, takat kumi ku day jàng salatul fatihi ngay jàng salatul fatihi mom nga deg Serigne Cheikh Tidiane sidiko wax yatalaqanuuna salataka al udma allati ma ba'daha lil jilsi min qurbani akay deg ci hada rasulullah yowma nuzulihi mutaqallidan bilhaqi walburhani mutabassiman farahan bi safi malaikin basatu ilayka akuffahum bi tafaani yatalaqanuuna nag salataka al udma allati ma baadaha lil jinsi ni la demee il faut que les choses soient claires hein? ok xoolal bi loolu amee nag jibril ci boppam fa mu toll la toll wàccul nag dafa addu daal di ni ayyuha aljamcu almubarak rabbukum yuqri'ukum assalaam wa qaal inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah Li jibril la wax ayuha aljamu almubarak yéen mbooloo mu tedd mu barkeel mi rabbukum seen boroom yàlla yuqri'ukum salaam mi ngi leen di nuyu wa qaal te nee na inna alladina werante amul ci ni gaa yi nga xam ni yubayi'unaka ñi ngi jaayanteeg yow Cheikh Tidiane innama yubayi'una allah buur yàlla lañ jaayanteel mais pas yow lii mooy xatmiyatu du li may wax ay wolof la leer na lii nii ma nettali lii mooy xatmiyatu amul nitu yàlla bu mas a am lii amul nitu yàlla bu mas a xalaat lii amul nitu yàlla bu bu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas a defal lii ba addinay tukki nag c'est fini léegi nag gis nga loolu mooy xew-xew bi na mu demee léegi nag dañuy dem ci baatu xatmiya la lay firi kooku nag dama ci dama ci niitoo rek sama góor gi sama góor gu ñàkk morom gi Maodo Maodo mhm. waaw waaw dañ ci ñëw Moustapha nee na spécial si Raaj malik bi daay dañ ci ñëw waaw waaw alaaj Malick Diop góor ga ndeysaan dañ ci ñëw ñëpp ñëw ci ñoom ndax ñu ñu mat ñu mat a xam mët a rek eh, eh, kooku jaadu na waxtaan ci sa jaar-jaar tuuti ndax gis nga xale yii kat alaaji jaadu na ñu wax leen li nu am lana ndax buñ ko xamee a ah, bu an bu àndeek dogalu yàlla day yu bari mën naa baax te alaaji loo ci xamul eh, xale yi bëgg nañ lool tariqa tijaan xale yi bëgg nañ lool Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu man léeg ay xale yu ndaw ñoo ma yoo ma accordé leen temps di leen déglu man sax damay mujj jaaxle am na ci ñoo xam ne dem nañ ba may solo sax ñuy solo <laughs> barke Cheikh Tidiane yàlla xam na ko yàlla xam na ko am na ci am na ci. waaw waaw waaw waaw alaaj de moom xam nga moom tabarkalla waaw bu ko defee eh, eh, lu mel noonu. lu mel nonu dafa wara tax fi mu ne ñun am ñu di leen waxtane legi nak mbokk yi dama bëgg rek wax leen baatu khatmiye bi ñuy wax bobu ba tey lan lay firi ñaar la ci nito kenn ki moy sayyid al Haaji Malik radiyallahu taala anhu kenen ki moy borom yaqutatul farida moy sayyid muhammad nadhifi damay njëkkee ci Seydi Haaji Malik xam nga Cheikh Tidiane dafa am ben wax bu mu mas wax wax bi mo doon dafni won woon qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin lillah من لدن ادم عليه السلام الى النفخ في الصور باسكو نك واخ بوبو ديفا نين كوي فيري باخول دنج كوي فيري مو ملني خمغا دفا ام بس شيخ عبد الغالي الشريف رضي الله عنه توك شيخ تيان شيخ سونو تي بوجام ني با ياغ جيكي جيكي شيخ عبد الغالي نيكو دابا موسى غيس تي بن تيري شيخ عبد القادر الجيلاني واخ تا واخون تي قدمي على رقبه كل ولي لله sama ndëggu alqadam nag buñ ko waxee inda al qawm aw inda rijalillah kibaara aw ibara an il maqaam loolu lay tekki maanaam qadam li muy tekki ndëggu tekkiwul tànk mais li muy firi mooy sama maqaam ak sama tolluwaay ca yàlla ala raqabati kulli waliyin lillah képp kuy waliyu yàlla sama maqaama man Cheikh Abdul Qadir al Jilani mi ngi tegu ci sa kaw gis nga loolu bi mu amee li gën yéeme xam nga mooy lan Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi ko bi ko Cheikh Abdul Ghali waxee daf mais li ñuy nettali wax ci baaxul شيخ بيم كو واخي لان لاكو واخ قد قاله في زمنه يدي وكو داف كوني تي جامونوم لاكو واخون كون كاي فيرنيل نكو دغ لا تي جامونوم لاكو واخون با بار دال دي جوك نك موم شيخ سيد احمد تجاني رضي الله تعالى عنه دال دي بول نياري تانكام يني كو قدما يا هاتان على رقبه كل ولي لله ملد ادم عليه السلام الى النفخ في الصور سما نياري دغوي مي شريعه اك حقيقه sama ñaari ndëggu yi muy maqaamul xatmiyati ak maqaamul katmiyati ala raqabati kulli waliyin lillah lii laa tiime góor yàlla yi moo tax mi ngi ci seen kaw ñoom mi ngi ci ndoddal bépp nitu yàlla min ladun adam alayhi salaam ba yàlla bindagul yonent yàlla adam ila nafxi fi suuri ba keroog ñuy wal boftaga ba addinay tukki laa nii gis nga nag wax boobu bi ko Cheikh Tidiane radiallahu anhu waxee li ci gën yébe bi mu koy wax moom ci boppam mboole xut bi ñu ngi ubbi seen i bët janook moom te kenn ñemewu ko weddi ndax benn xutbu buy addu ci piyu suñu borom bi mboole xutbu yi dañ koy dékki seen bët xool ko ak i bët wallahi ñëpp koy koy janoog moom di ko xool ndax xutbu du fen hmm. mënu ko sax waaw ah, kay ñoom ils sont dans l'incapacité de mentir mënuñu fen waye gis nga bi waxe lolou sidaj malik dafa tassu ci wax ji daldi jël wax bobu nak daldi cey def ñenti qasida ben qasida bu nek rek day jël bop wax yi mana day jël texte bi ben harf bu ci nek mu daldi cey ndaysan def ben bayit comme qadama ya qaf bi la jëkke ben bayit bobu rek la soxla ndax bayit bobu moñu firil lan moy khatmiyatu muni qutbi على الأقطاب غير مكذب إذا هكذا أنبى النبي فصدقي اسكي الله أكبر من قد بي سما سنگ بدي شيخ تجاني رضي الله عنه على الأقطاب موتم موسود مبول سنگي كون موم يدي ولني أقطابي أمنا waye ki nga xamni mo len tim sut len mo cheikh sayyid ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu mu ñu gis غير li ma wax ghayra mukaththib كن دوكو ديندي سي دي حاج مالك مكو واخ لوتاخ مون هكذا ني مكو نيتالي ني مكو واخي ام با لاكو نيتالي لاكو سولو لاكو انفورمي النبي كيغا خامني سي لانفورماتور دي يونس عليه الصلاه والسلام كون كاي يو فصدقي دغلال ما دا شيخ محمد الحافظ التجاني المصري داف كران واحد نينا بو واخي نيتو يالا بو واخي دغلال كلوتاخ مون فصدق فارزاق المصدق حلوى ورزق المسيئين الظنون حناضل ترى المصطفى حيا بالدنيا وصحبه كوكو دو نيت Camno Xaawal li mu liggéey ci ay téere ci tariqa tijaan kenn xamul ni mu toll xanaa dafa fekk xastu sabil moo ci gën a siiw ak raddu akadibil muftarin ala ahlil yaqin moo ci gën a siiw mais li mu ci liggéey kenn xamul ni mu toll Siraaj Malik bi mu waxee loolu qutb bu yépp a ngi janoog moom te kenn ñemewu ko weddi kon li mu ni qutbi alal aqtaabi wala nga ni qutbi alal aqtaaba baax na boobaa da nga koy firi ala doo ko doo ko firi doo ko def préposition da ngay wax ala tiim na sut na al aqtaaba mboole xutbi yi wala nga ni xutbi yi sama sang ba ok gis nga loolu bi mu ko waxee ba noppi nag ci lañ xam lan mooy maqaamul xatmiye kon nekkete xatmiye li firi moy ki nga xam ni fi mu egg ci wilaayatu fala wilaayatu yam te kenn musu caa faa àgg تكن دو تفا اغاتي لول لول لا بات بي دي تيكي مي تيكي ول ولي وو خامني غناو ولي يودو ام دي ديدت تيكي ول كو تيج بونتي ولايه دي ديدت لول نك لي واخ ني كيكو غنا ليرال موي سيد محمد نظيفي تي ياقوتو الفريده سو تي ديمي بو ديمي تي بامي بريزونت شيخ تجاني باي واخ نان هو البرزخ الاعلى واسل الوسائل وينبوع رحمه وبحر الحقيقه فبالختم والمكتوم سمي عندهم لختم ولاية وكتمان رتبة به ختم المولى كمال الولاية كما ختمت رأسا بروح وكلمة سينزل خاتما ظهور ولاية فليس ولي بعده بالمشيئة tey waa ji lay xam nga ñii xanaa dooma ñi dañu amoon jot rek ey waa toog noonu rek fekk benn waay noonu rek di ko tagg aywa loolu defe naa mënul nekk daf ni fa bil xatimi wal maktuumi summiya indahum gis nga boo demee ci nitu yàlla yi ponkal yi ñoom ñoo tudde Cheikh Seydi Ahmad Tijaani saaxibul xatmiyati wal katmiyati lu tax mu ñu li xatmi wilaya ndax Cheikh Tidiane moo dem ba ci njobbaxtalu wilaya mu ferankulaayu ca fa mu ca yegg nit dootu ca yeggati waaye wakit maani rutbati li tax ñu tudde ko saaxibul katmiya parce maqamam ci yàlla dañ ko neub ku moy ku moy yonent bi alayhi salatu wassalam ak jalla jalaluhu wa azza kamalu kamaalu lo ci wax dara muñ ni nag bihi ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu khatama la tiabe le tëjee la fatte al mawla yàlla ci bopam lan le tëjee ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu muni kamal al wilaya matuk wilaya wa kay lol moy wax ji waxuñ ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu gannaawam wali yi du am non non non nous on n'a sat xam nga ñun lan lañ wax li ci yàlla yi ci xatmiyatu moo di lépp lu yàlla def ci wilaaya ci ay may aki leer ak i xam-xam aki daraja ak i yéeguwaay ak tolluwaay ak yëguwaay loolee kenn kamu daje ca moom kooku la ñu tuddee saaxibul xatmiyati loolu la naan bihi xatamal mawla kamalal wilayati ci matuk wilaaya fa mu matee nga xam ni dara manqué wu ci ka nga xam ni moom la ñu jox loole kooku mooy cheikhana ahmad at tijani radiallahu anhu loolu mooy xatmiyatu léegi nag mu teg ci loo xam ne lu naqaree firi la muy kama xutimat rasan bi ruuxin wa kalimati a ah, kama noonu nga xam ne xutimat noonu la ñu tëje rasan ca cosaan yaani aslan bi ruuxin ci yonent yàlla isa wa kalimati ak ka nga xam ne moo di baatu yàlla ba lool lan la bëgg wax foofu parce que dafa bëgg a wanee ni yonent yàlla isa dana wàccaat تبوا أشاتي دونك يونان تولي يلينك تمام دنا أم خات ميو تبابم تخات ميو بابو بقول لك خات ميو بشيخنا أحمد تجاني رضي الله عنه لول أسي الفوق ملر متخ دنا بروسيد كون تلو لونا خامني مودي فسون خات ميو ينا خامني يوم يوم أم يونان تبي لمو أم خات ميو تلو يتدو waye ci nubuwa tulako am koku du problème cheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu limu am khatmiyatu lay tuddu waye lolou ci bir wilaya khas lako loolu nag dinaa ko leeral tuuti yonti yàlla isa li mu am xatmiyatu lay tudd waaye ci biir wilaayak xaa euh, nuñ koy waxee euh, euh, wilaayak xaas la cay am ca la ko am parce que xam nga li may wax pour mu leer pal gi nit di am ci yàlla li ñuy tuddee wilaaya mooy ak pal comme tey nga xëy ñu ni dañ la nommé ministre wala dañ la nommé directeur général ci benn agence wala nit ñi d'accord nañ nga représenter leen ci assemblée nationale pal googu loolu la ñuy wax wilaya pal googu nag ñaar la daf ci am loo xam ni dafa nëbbu am ci loo xam ni dafa feeñ li nga xam ni dafa feeñ loola ma nga tàmbali ci yoon yont yàlla aadam xam nga fan lay tëjoo ci ponkal ma góor yàlla gaa muy limaamul mahdiyul muntazar moo tax moom it am na xatmiyatu ndax wilaaya ak ci moom lay tëjoo ci moom lay yem bu dee nag wilaaya ak baatin foofu la problème bi nekk parce que dafa séddalikoo ci ñaari xaaj dafa am ñaari langet mooy li nëbbu pal gi yàlla di fal nitam ñi ñaar la daf ci am loo xamante ni bii ni ñëpp ko bokk am ci loo xam ne lu particulier la li ñëpp bokk ci yonent yàlla euh, euh, euh, Adam la tàmbalee waaye mi ngi yem ci yonent yàlla Isa moo tax mu ni kama khutimat rasan bi ruhin wa kalimati kon mi ngi lay xamal wilaaya ak pal gi yàllay fal nitu yalla yi nga xamni ni du ca tege famu tambale moy ci yontu yalla adam waye ci kamiy tejo modi yontu yalla isa lolo tax mu tek ci ne sa yanzilu dana wacc mom yontu yalla isa khatiman di aji tej ak di motali ci loolu nga xamanteni bi ni mom modi di wilaayak batin dana wacc tej ko waaye la cay lu général mooy la cay am moom la naan zuhura wilaya lay feeñ ci wilaya moo tax fa laysa waliyun baadahu waliyu dootul am ginnaaw yonent yàlla isa bil machiati ci coobare yàlla mukk léegi nag la cay la nga xam ni nag moo cay lu xaas lu particulier ci biir wilaya ak batin pal gi yàlla fal nitu yàlla yi mi ngi tàmbalee ci yonent yàlla muhammad waaye mi ngi tëjoo ci yonent cheikh sidi ahmad tidiani radiallahu anhu te diggante bi saaba yee fi dox motax mu daan wax buma ma kenn tëkkaleeg saaba yi kooku yu chàkk léegi nag kon xam nañu façon xatmiye yi nga xamante ni bii ni moo am ku mel ni limaamul mahdiyul muntazar la mu am xatmiye la waaye ci wilaaya ka zahir la ko am ci moom lay tëjoo yonent yàlla isa la mu am xatmiyatu la waaye wilaaya ak batin la cay aam la waaye yonent yàlla cheikh sid ahmad tijaani radiallahu anhu la mu am xatmiyatu la waaye ci biir wilaaya ak batin la cay xaas la lii daa ma ta xam léegi nag bu ñu paree nag ci loolu mbokk yi waaw kay organigramme bi ah déet daa mat a xam nag daa am nu mu doxe yëf yi waaw doxewul ni ñu koy xalaatee ñun déedéet léegi nag dafa am leneen lu doy waar muy maqaamul katmiyati wala mu nga dégg Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu ba muy wax ci Cheikh Tidiane ponkal mi mu ni xitaami nidaamin lil wilayati jumlatan به أرتجي الغفران من كل ذلة به أرتجي فتح المغاليق كلها كوكو كان وقايتنا التجاني من كل شدتي waaw dafa xam li xew rek Maodo da laa wax man Maodo Maodo Maodo Maodo ok loolu mi ngi ko wax ci xatmiyatu kon nañ ci yemane noonu léegi nag bokk yi gis nga xatmiya xatmiya moom mënee su cee sori parce que ah ah lu ñu nëbb la ah lu ñu nëbb kat moom moom papa da ngay kile rek waaw waaw waaw am lu lees ca mën wax effectivement sinon tu tu tu tu risques de de de spéculer effectivement xam nga Cheikh Tidiane radiallahu anhu maqaama boobu ñaari wax la ci wax te ñaari wax yi boo demee ci kooku nga xam ni moo di Sidna Abdul Mushir radiallahu taala anhu ci téeram boobu mu tuddee woon al jamia liduraril ulumil faida min bihaaril qutbi al maktum téeréem boobu soo ci demee ca la wax ni wa min shatahaatihi boo demee ca shatham ya bu jeexan takk ci yàlla moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu daana jekki ba yàgg di wax lii te buñ ko laajee lii nga wax nii ban maqaama moo ko attan ban maqaama moo ko yenu mu ni xat miyo li muy rëy rëy li muy foor foor attanu ko kat miyo moo ko attan loolu dong lañ mën a wax ci kat miyo te ñaar la ca wax te ñaar yam ca wax nitu yàlla mosu koo wax te kenn ñemeñu koo wax ba addinay tukki دفنون لا يقدر أحد من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة إلا أنا وحدي وإن عملوا ما عملوا من الذنوب وبلغوا ما بلغوا من المعاصي لا يقدر منل لا يقدر أمل كتن لا يقدر أتنل لا يقدر أمل دولتي يالله أحد كن لا وخ من الأولياء تمولي أولياء الرحمن أن يدخل متبال مدوغل كافة أصحابه مبولي أي أندلوم تي يالا مدوغل لين الجنة الجنة كن أمول دولة جوجي تي يالا إلا أنا لموي من وحدي من كيب لا وخ بياغ متكي وإن عملوا ما عملوا من الذنوب أك لونيو كو جفتي أي بكار لومو باري باري باري باري باري, باري. وبلغوا ما بلغوا من المعاصي اكفوني كو يغي سي موي يالا لومو كو باري باري باري باري سين لوخو سي سما بير لوخو ما نيوم با الجنه لول دو يو طالب بي دي موما شيخ تيان دولم سي يالا موتول نونو كوكو بن لا كوكو كاتمي موكو يانو بنن بي سي ديس سي غاتال شيخ تجاني رضي الله عنه مو وخون موني ان صاحبي لا تاكله النار ولو قتل سبعين نفسا ثم تاب بعدها لأن قدرة الله صالحة لكل شيء سيطة الوقت جي لدرينا إن صاحبي ورنت أمول كلي سما أنا دو من شخصي رحمة تجاني لا تاكله النار سوارو دوكو لك لا وخ واو باسكو سوارو دو موي لكي يالا موي لكي سوارو ديس كوي جوخ ندقل تندقل ديش يالا لاي بايكو seetal yoon te ibrahim kerok ban ko jëlee dugal ko ci mbaq gi ci xelum say say bobu di iblis tawwi sanni mune daga cibir dagat ci bir sawara wi suñu sawar suñu borom lum wax sawara wi ya naaru bardan wa salaman ala ibrahim ñi sawarawi, lak sawara yi buñu dugg sawara suñu borom mo leen di jox digal dan ko ya narukuni harran wa shadida ala nangam nangam tout ya naru yow sawara wi kuni nekkal bardan seddal guy waye sedd bo xamni day and ak jamm bu lor motax wa salaman mu tek ci ak jamm nak ala ibrahim ni la demé sawara du lak dafa takok tangor mais suñ borom moy lak cheikh neena sama andando sawara du lek yaramam donte rey na juróom ñaar fukki bakkan waye nak amna charte et c'est très important ñu diko ko préciser ta moy limuni mu ni waaw nak waaw nak waaw summa taaba ba'daha topp nag gannaaw ba mu tuub dellu ci yàlla ñu ni ko waaw waaw wax ji de rëy na waaw mu ne ah déet li anna qudratallahi salihatun li kulli shay ndax kattanu buur yàlla xajoo na lu ne bokk yi gis nga ñaar yi lañ leen mën a wax ci ci mbiru katmiya la ca des nag borom maqaam bi la mooy borom maqaam bi moom ci boppam لحظه بني كيرس بني بو لي ماي واخ بو نين ديمي جا الجامع لدرر العلوم الفائضه من بحار القطب المكتوم سيدي حمد سيدي محمد المشري موكو نتالي دي بوني غيس نغا كي يانو مقام الكتميتي فيني وا ييغا خامني موم لا سونو بوروم دي فيني وا دي فيني وا الجنه لي دي اي خام خام لي دي اي ماي لي دي اي لير لي دي اي ييغو واي تي موم يالا nga خامني الجنه لولو فا ام بيرفكسيون لا نينا فيني وا يوي نونو كي يانو مقام بي ني واخ مقام مقام الكتميتي سونو بوروم دانا كو تي فيني تي لحظه بوني 600000 تجلد juróom benni téeméeri junni tajalliya ci tajalliya yi nga xam ne suñu borom dana ko feeñu wax aljanna damay bañ wax ji diis et duñ ko comprendre. est-ce que am euh, léegi loolu nag boo ko déggee rek di nga mën a dégg lii jeex na takk boo déggee loolu waxtu aljumaa suñu borom tabaraka wa dina ci jéggal. جروم بن تيميري جني نيت يو ورونا ديم سوارا سي وقت ووني متبلن الجنه والله بو بو ديغي لول رك ديغا مانا ديغي لي كون نك بوكي خمنا ني واخ دغ يالا ييف يي وقتاني دا فا اوبيكو رك الذهب الابريز من كلام عبد العزيز بو عبد العزيز دباغ ابريز واخنا سي لب سي غاتال باسكو يبارينا يوني واخ parce que faut nous comprendre que ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu dafa wax benn wax bu am solo daf ni ci pays yàlla bi xaw ma ci ku ëpp ak mos ku ëpp zawqu Abdul Aziz Dabakh wa samaay wa taariq la yemoon waaye may gi ci yàlla dafa rëy koo xam ne boo ko laajaan danaan la may ma ma laaj ko yonente bi alayhi salatu wasalaam ba noppi ndax lii moo ko waxam waxu ko boo demee ci adhabul ibris min kalaami Abdul Aziz bari na ay ahadis yoo xamante ne bii nii dafa ni carrément laaj na ko yonente bi yonente bi nee na waxu ko bokk na ca xudu nisfa diinakum an hadihi alxumayra bokk na ca ci xadis yooyu la bokk waaw ma ngi fa watti c'est écrit noir sur blanc moom Abdul Aziz Dabakh wax na ci may yi wax na ci maqaama yi xuruuf abajadi yi alaf xarful alif lan lay tekki lan lay firi ak ci ban section la bokk parce que xaraf yi dañ leen a séddale ci ay section yooyu yeneen xeeti xam-xam la dafa am loo xam ne xuruuful aadamiya la noonu la donc kooku xam-xam bi ko yàlla jox benen xetu xam-xam la ben wax na ci peyu suñu borom bi ba xam le ni pey bi du fenn fu mooy gheru hira te lu jitu gan ak àddina ak yonent bi alayhi salatu salaam ruuxu nitu yàlla yag nañ fa daje da ngeen fokk ne yonnati dafa xëy bés rek xëy rek nonu rek di dem gheru hira nonu rek dedet gheru hira day feñu wayu suñu borom ah da ngeen fàtte ne yonent Yàlla Moussa keroog bi mu ne rabbi arini anzur ilayka qaala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makana fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa xarra Moussa sa'iqa suñu borom moo ko ni da ngay xool tund wi muy tuuru Sinaa suñu borom ni ko bu fekkee bu ma defee tajalliya tuuru sina bii fi mu taxaw dana fi taxaw su boobaa da nga ma mën a gis sinon nag bay boo nga xam ne gis ma mënul nekk yàgg nga maa dégg kàddu gi neex na ci yow boo fi mu ne da maa bëgg gis ti ko taqamtiku léegi nag condition bi lii la xoolal tuuru Sina danaa def te jëlliye ci moom yonent yàlla Moussa taxaw suñu borom benn te jëlliye def benn manifestation divine ñu bari dañuy wax ni fa xarra déggal euh, euh, euh, fa lamma tajalli rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka maana tajalliya bi dafa fekk tund bi mokkal ko ba mu mokk déedéet tuuru Sina ba léegi ma nga fa mu nekk mokkul de سين بابا كرشي رضي الله تعالى عنه فيري وكونون نيمكو فيري موي دوتوي مونتاج بي دا فا دوغ با جاخ تاك سي بير سوف سي باي تا بي جال مثل العاقل ملنيكو ام خل ابريز عبد الوهاب دراح مو جيتو سيد احمد تيجاني نيماكو جيتو جامانو تا جانكو دنجي تا ماروك ولي يالا بو ماك لا دينغ ci sa euh, di dama do netal rek ci ni gharu hira feñu soufre boobu bi muy dem ak souffle bi dafa am lu mu yóbbuwaale la mu yóbbuwaale dafa constitué wu nekk juróom benn doj ñett yi dem ba Madina doog ñetti yi dem ba Makka toog ñett dem ba Madina Uhud ca la bokk ñett yi dem ba Makka jabalu abi Qubays ca la bokk xeeru Xira ca la bokk Ridwa ca ca la bokk Arafata ca la bokk doj yooyu du ca feeñu waayu suñu borom tabaraka wa taala loolu moo waral yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam taqoo woon xeeru xiraa daan fa dem daan xalaat ci yàlla daan julli ñaari rakka yonent yàlla ibrahim ya kooku di abdul aziz dabbaax sahibul ibris wax na ni ruuxu nit yàlla yi foofu la ñuy daje nag di waxtaane mbiri jaam yi wax na ci lu bari ay ay alquran yu ñu ko laaj mu laaj ko yonent bi alayhi salatu wasalaam ay ahadis nabawi yu ñu ko laaj mu laaj ko yonent bi alayhi salatu wasalaam bari na du jeex kon nag il faut que ñu comprendre que ni rek Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu dafa nekkoon nitu yàlla boo xamante ni bii nii ku universel la universel ji cadre bi ma koy waxee mooy ci côté xam-xam. li waaw xam nga mu jaddit yonent bi alayhi salatu salaam. dégguma léeg-léeg ma dégg ngeen Seydi Ahmed Tidiane tariqa. mu mujaddid ah Seydi Malik taalibeem sax mujaddid la barke alquran Seydi Aj Malik taalibeem taalib moom mii jaddit la. parce que ci biir wali yu dafa am lu ñu tuddee awliya u mursala ay wali yu yoo xam ne dañ leen di yónni dañuy am maqaamab yonent bu ñu yónni na yonent bi doon amee cause bu muy défendre moom bu dikkee noonu lay amee cause bu muy défendre te dana ko défendre nag moo tax Siraj Malik mës na toog ci biir mag ñi ñu koy laaj ndax wali yu mursal am na mu ni ko xaw am naam amul waaye man dey mursal laa ci yéen Cheikh Tidiane radiyallahu anhu sëriñam ci mujaddid yi la bokk mooy ñi nga xam ne xar kanamu diine bu demee ba poussière nit ñi jaawale sunna ak bidaa nit ñi jaawale dëgg ak caaxaan kenn tegootul ci raay bi yàlla day seet kenn koo xamante ni bii ni ci jir jaamam ñi lay nekk mu roof ko ruuxul quds mu am maqaamab koo xamante ni du yonent du nekk yonent nag waaye day am maqaamab eh, koo xamante ni bii ni yonent bu ñu yónni lay doon wàlli yu bu ñu yónni maanaam day am maqaamab yonent bu ñu yónni mais du doon yonent moom dégg nga léegi nag gis nga kooku bu dikkee lépp lu rappoon ci diine ji def koy beesalaat tëralaat mbir yi xalaat yoon yi ba trace yi waat lépp yoon yi réeroon mu feeñalaat ko blon yi desserré woon mu waat ko lenn lu ci nekk mu delloo ko a sa place loolu mooy mu jëddit Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ci mu jëddit yii la bokk ci lu am laa maxaala fii kooku amul lu ñuy lam-laam yi su ko defee nag loolu mooy firi mu jëddit mooy koo xamante ne bii ni dafay ñëw lépp lu noroon ci diine mu noddanti ko lépp lu euh, nasaxoon ci diine mu dooleel ko lépp lu ca mabboon mu futtiku taxaw tabaxaat ko lépp lu deseere woon mu seerewaat ko lu wàccoon yoon mu teg ko yoon loolu mooy mu jaddit moo tax kooku du du def lu may jàngale ak tarbiye nit ñi su ko defee nag kon nag mbokk yi xam naa ni eh, waaw moom kay du mën a doy ndax xam nga li ji wax naan Cheikh Tidiane géej la guddul jeex moom dangay ngay tànk ba sonn rek nga bàyyi bu ko defee kon fa tabarakallahu ñi ngi sargalaat bu baax ñëpp ci bés bi ndax ku ne xam na ni eh, laylatul katmiya moom fa tabarakallahu mag ñi daan nañu ko daan nañu ko commémorer bu baax a baax daan ko màggal bu baax a baax daan ca def ay waxtaan daan ca jàng ay salat al fatih daan ca jàng ay kaamil al quran daan nekk nettali jaar-jaari Cheikhana Ahmad Tijani radiallahu taala anhu xale yi ngeen gën cee góorgóorlu ci di ko organiser et puis nag organiser ko ci façon boo xamante ni bii ni dana nekk lu pédagogique dana nekk luy indi ay orientation ci ci ci ci ñi nga xam ni ëllëg bu ñu ñëwee danañ leen wax kii moo doon Cheikh Tidiane nii la meloon lii la def ba tax ko am lii ko defee kon ngeen jéggal nu ah mu ah, Moustapha nag tey moom yobbal bi moom xam naa ni du passé rek ñu xam ni Cheikh Tidiane amul morom kooku tëkkaleel ku mooy moom da koy da koy da koy jay di ko nax rek wallahi yàlla xam na ko. sëñ Hadi Touré waaw sëñ daf daan wax failan failan an ko woy ci wolof boo ko woyee ci wolof kon ci xol lay xaraf mm-hmm. ah, déglu naa biig ci njël ay pitax ci garab ñuy mm-hmm. tawat naa hadil ab licin moo ko këf mm-hmm. mii di woy mii di jooy kurkutub kurkutub boo amul fat nag doo ci xam aw xaraf mii pitax naa ko ndax mar wu waa ko rey mii pitax naa ko man xaaju maa wóolu maf seeni jooy moo yëngal tiisu xol wi ci man moo taxit maa ngi nii maa ngi saf waaju dof fu ngeen fi gis kuy nelaw xam leen ni cofeelam matul bu cofeelam matoon ay bëtam sax du raf fuy pitax deeti woy hadil nañ fa woy Cheikhu Tidiane Chérif moo ko jar mag du kaf Cheikhu Tidiane am kemam daamul foo ko seet doo ko gis muy kajoor muy jolof Cheikhu Tidiane man waaru naa ci mbiram ak cofeelam rekk ci xol sax doy na jëf daagu leen ciw lefam